mardi 11 juin ngeen nekk seen émission miroir du Sénégal seen seetu euh, ma leen koy tous les mardis et tous les jeudis démb comme ni ngeen ko gisee maam ku ma ñëw na wax ci ONG yi euh, chaque fois fii seen la thème yu leen intéressé rek la ñuy waxtaanee heure boo leen émission bi gis ci seen bopp ngeen mun en direct sur la télévision Futur Média du lundi au jeudi mais bu fekkee émission bi rëcc na leen mun si réseaux sociaux yi et encore merci pour tous les retours que vous nous faites en tout cas ça fait plaisir euh, comme ni ma leen ko annoncé tout à l'heure on va parler d'ONG organisation non gouvernementale Euh, nga xamante ne c'est des acteurs très importants de la vie de tous les jours ñuy agir nag ci domaine yu bëri domaine boo jël rek euh, gis nga ONG boo xamante ne daf ko jël à bras le corps pour xool nan lay def pour mu gën a euh, évoluer convenablement comme ni mu waree mais bu fekkente ne tey dañu war a jël benn point commun entre organisation non gouvernementale yëpp di ONG yi nekk ci àdduna bi mooy ñoom lépp lu ñuy def mooy dañuy agir pour le respect des droits de l'homme droit yoo xamante nag dañu koy bafoué bu baax fii ci àdduna bi notamment zone yi am guerre je pense à la Palestine actuellement zone yi am crise wala zone yi nga xamante ne am na ay génocide comme Congo on en parle très peu mais ça existe ONG yi dañu fay dem doxal fa seen mission donc ñoom actuellement ci àdduna bi ils près de 10 millions dix millions d'ONG yooyu nag euh, bëgg nañu xam lan mooy seen mission véritable lan mooy seen rôle pourquoi on les a créés lan la ñuy def ci société bi euh, est-ce que am na luy làqatu si ginnaaw ak aussi surtout yan frein la ñuy am bu ñuy doxal seen mission ci biir àdduna bi je serai pas seule sur le plateau car comme tous les mardis je suis avec ma magnifique Black Fatwa euh, donc actrice influenceuse et activiste donc Black Fatwa bonjour bienvenue bonjour. sur le plateau ravie de te retrouver namoon <laughs> naa la ñaaxee rek ma gis nga loolu. <laughs> <laughs> alors maa ngi lay nuyu Bijou merci beaucoup di nuyu ñi nga xamante ne nekk ci plateau bi rek comme à chaque fois sujet yi ñuy waxtaanee dafay nekk sujet yu am solo yoo xam ne ça intéresse tout le monde et tout le monde est concerné donc bienvenue dans Miroir du Sénégal. merci belle ci kanam ñu waxtaanee ONG xam naa ni comme d'habitude rek lu lay soxal la ndax sujet boo xam ne euh, dafay euh, dend ak li ngay def mooy tout le temps défendre droit wu nit yi euh, sur le plateau maa ngi ni ma leen ko doon waxee tout à l'heure ñu ngi directeur campagne et communication bu Amnesty internationale euh, merci beaucoup monsieur Seck d'être sur ce plateau pour ñu waxtaanee ONG ak seen action. merci beaucoup pour l'invitation euh, nuyu sama ko débatteurs yi euh, di leen jaajëfal également yaakaar ne dinañ fex loo xam ne nii dina am njëriñ pour euh, ñu seetaan. c'est l'objectif de l'émission wax loo xamante ne bu ñu fi jógee dinañ ci jàng dara et puis dina mun a permettre nit ci ñu avancer un petit peu dans leur vie de tous les jours ñi ngi fi aussi ak beneen invité moom mi ngi tudd Moustapha Mendy nekk directeur de la jeunesse euh, des opérations de secours et du volontariat à la Croix-Rouge euh, Dakar euh, donc moom aussi mi ngi nekk volontaire secouriste ak kinésithérapeute au CHNU de Fann Moustapha Mendy bonjour bienvenue sur le plateau et merci te ñu ñu invitation bi surtout biñ la woowee pour euh, ne ma je serai là pour parler de l'ONG Croix-Rouge. Euh, merci beaucoup je me joins aux remerciements et aux euh, salutations de mes camarades le plateau mais bien sûr Croix-Rouge moom nous sommes toujours euh, au chevet de la population te fu ñu woowee rek bu ñu amul ngaan bu farata dana war a teew pour communiquer. te incha allah daanu gën a sensibiliser population bi gën a xam lan mooy croix rouge. croix rouge internationale yaakaar naa ni bokk na ci ONG yu ma njëkk a xam bi ma nekkee xale. di leen xool seen ay missions ça m'a toujours intéressé donc dinañ lan mooy rôle lu Amnesty croix rouge ak de manière générale ONG yi nga xamante ne ñi ngi Sénégal mais aussi à l'international si plateau bi dinañ am beneen invité bu nga xamante ne dinañu rejoindre moom nag mi ngi association Enfant Soleil ñoom nekkaguñu ONG en tout cas mais dañuy liggéey bu baax baax ak en collaboration. collaboration ak euh, ONG yi pour euh, mener euh, mener à bien leur mission première question bi ma leen di laaj mu commencé ko ci monsieur Seck mooy Amnesty lan moo ko tax a jóg. waaw Amnesty li ko tax a jóg mooy aar àq ak yelleef doomu aadama bu ñuy wax aar àq ak yelleef doomu aadama nag dafa nekk loo xam ne ni yaatu na. Mm-hmm. ni organisation kuréel organisation ni mu bëree. noonu la également droit de l'homme bëree. Mm-hmm. ku ci nekk am pàcc boo xam ne ni yaa ngi si yaa si def. pour ñu citer Amnesty ci organisation globale yi teg teg théoriquement mun nañ euh, xaaj organisation yi en trois catégories mm-hmm. am na organisation yoo xam ne nii ay droits de l'homme la ñuy def maanaam àq ak yelleef doomu aadama comme Amnesty mm-hmm. am na group boo xam ne nii comme Croix-Rouge par exemple mooy organisation humanitaire yi euh, ñeneen ñi troisième groupe bi moom mooy ñoom ñiy def euh, développement mm-hmm. nga xam ne aussi ñoom dañu gox goxaan yi dimbali nit ñi Euh, pour ñu assurer seen euh, seen développement boo xoolee ñun organisation ñu ngi ko créé en 1961. Euh, fële ci fële Londres benn avocat bu ñu tuddee Peter Benenson moom moo ko créé parce que dafa toogoon ci benn restaurant. ay étudiants aussi nekk fa mais étudiants ay étudiants chiliens booba Chili ak réew yu bari. amuñu woon démocratie. Mhm. ba nga xam ne ni lépp lu ñu wax ci biir réew mi wala bu ñu ko waxee si biti également euh, dara mun nañ leen ci fekk ñooñu doon def tous à la liberté comme ni ko étudiants yi tàmm defee. Mhm. ñu jàpp leen si loolu tëj leen. Mhm. moom ni mu ko fekkee comme mu heurté ko en tant que avocat mu bind si article euh, tuddee les prisonniers oubliés wax ne également. maanaam mooy ñi nekk ci biti. ñi nekk waaye ñi ngi prison. ñi ngi euh, loolu bi mu ko décrire. mais également mu lancé appel mu ne képp koo xam ne nii lii li xew nii métti na la na nga na agir maanaam action yi nag bëri na mun nga partager information bi mais mun nga bind aussi ñi nga xam ne nii ñoo leen jàpp pour ñu bàyyi leen bi mu defee loolu am ñoo xam ne nii ak agir nañ ñi bind ñu libéré leen ñu ne ah comme di def nañ ko peut-être également am na yeneen type de prisonniers yoo xam ne nii nekk nañ feneen ñu lancé appel nag appel Amnesty International ñi ñi nga xam ne nii ñoom dañ mënuñu woon agir mais mun nañ dimbal organisation bi ñuy joxe xaalis. Mm-hmm. di soutenir organisation bi ñii di agir ñii ne également ñun suñuy réew wala suñuy gox am na ñu nekk même situation boobu noonu nañ organiser wu. donc loolu moom moo indi am amnistie ke jógee foofu noonu tasaaroo si tasaaroo si àdduna bu nekk organisation boo xam ne ni organisation de membre la. am na si organisation de membre la comme Croix-Rouge Euh, organisation yi aussi am na yoo xam ne nii mun nañ ko catégorie catégoriser parce que am na mm-hmm. ONG yoo xam ne nii staffing la ñuy def ñoom amuñ ay volontaire am na ay nit ñoo xam ne nii organisation yi ñoo leen finance ñoo leen di fay. Mm-hmm. ñi ñëw di liggéey. Euh, am na ñoo xam ne ni ay organisation euh, volontaire kese la. volontaire ak membre comme association yi. mais pour Amnesty dañ ko dañ. dañ boole ñaar yi. d'accord boole ñaar yi mais membres yi ñoo si ëpp solo parce que pi ni maa doon wax léegi droit de l'homme dafa bari il faut ñu def priorité. il faut ñu teg ay priorité parce que mënuñ per performance pertinence si domaine yëpp. Mm-hmm. mais priorité yooyu noonu membres yi ñoom ñoo koy décider membre ñoom ñoo naan par exemple dans les deux années wala ñaari at wala ñetti at yi di ñëw bëgg nañ am ne si. def priorité si xale yi par exemple. d'accord def priorité si ci conflit yi wala def priorité si foncier yi. Mm-hmm. Euh, bu ñu ko defee bu loolu weesoo ñoom aussi ñoom ñooy wut xaalis bi nga xam ne ni moom mooy finance organisation. Mm-hmm. parce que am na ci du jël xaalis gouvernement. on on s'autofinance mooy mooy euh, définition même de ONG. Mm. organisation non mm. gouvernementale je pense que pour garder une certaine liberté. Euh, d'action. surtout du ñu mun a jël xaalisu gouvernement ndax léeg-léeg gouvernement bu defee loo xam ne waru ko def ONG day taxaw signaler ne gouvernement warul def li jéem teg ay action waaw surtout parce que euh, pour ñun. Euh, c'était un point important mm-hmm. surtout pour garder indépendance am Amnesty si parce que jàppoon nañ ne bu fekkee jël nañ xaalis gouvernement Sénégal par exemple di critiquer gouvernement bi mun nañ euh, par exemple soit li ñu wax neexu leen wala ni ñu koy waxee neexu leen. ñu ne ñoo leen doon jox joxatuñ leen. bu boobaa dafay bloquer organisation bi wala ñu jàpp ne ñeneen li tax ñeneen ñi duñu jox. moom moo tax ñuy jël yenn position yi. Mhm. par exemple même su fekkee nekkul xaalis boo xam ne nii Sénégal la jógee mun nañ ne par exemple euh, Côte d'Ivoire France États-Unis wala Chine. Mhm. daf ñuy jox xaalis. moom moo tax ñuy attaqué benn gouvernement wala attaqué beneen gouvernement donc pour éviter loolu yëpp ñu ne ah li nga xam ne nii ñu ngi koy utiliser pour recherche mm-hmm. def recherche wala def campagne xaalis boobu noonu si membre yi lay jóge mm-hmm. wala si euh, si don parce que aussi am na réew yu bëri peut-être développé Sénégal mais am na réew yu bëri yoo xam ne nii nit ñi dañuy tàmm di jox organisation yi. Hmm, euh, pour dimbali leen. Hmm. Euh, ay façon yu yu nekk nag. Hmm. am na yeneen pays yoo xam ne ni également état bi si boppam moom mooy euh, soutenir organisation bi mais de façon indirecte parce que mun na ne loolu xew na France. mun na ne par exemple comme man damay fay taxe ak impôt état bi chaque année may naa la yow yow mi justiciable. may naa la nga jël xaaj bi jox ko organisation bu la neex. muy mécénat en fait. muy mécénat. d'accord yooyu noonu dafay tax ñu soutenir organisation yi. ONG ONG donc xam naa yaa ngi dugg ci domaine bu nga xamante ne mooy financement ONG fan lay jógee suba Mame Koumba loolu lay ñëw waxtaanee spécialement d'où vient l'argent des ONG ndax euh, souvent dañuy wax di wax budget bi c'est à hauteur de milliards et à chaque fois les gens se posent la question mais ONG yi fu ñu fu ñu jëlee xaalis euh, d'ailleurs euh, ci suñu entendement sax bu dee. da ngay liggéey ñu ne la que benn ONG moo la jël pour liggéey dañ naan yii tekki nga parce que ONG yi moom dañoo yor <laughs> donc suba moom Mame Koumba dina ñëw ci xaalis bi et puis dinaa ñëw ak yow si euh, si yu bëri par rapport ak amnistie euh, ndax ku ci nekk ni nga koy déggee ak ni nga koy jàngatee mais balaay boobu damay may juste Moustapha Mendy moom tam mu wax ñu Croix Rouge euh, un petit peu la petite histoire kañ lañ ko créer ak lan moo tax Croix Rouge jóg merci beaucoup Bijou pour la question très muy question boo xam ne du ñu xëy bis sax ci mouvement bi te du ñu ko laaj. parce que y a beaucoup d'amalgame sur la croix en tant que telle entre guillemets. <laughs> donc croix rouge euh, da di euh, dañ koy woowee ci ñetti un. dañ naan mhm. un un un. c'est-à-dire c'est l'histoire euh, d'un homme. Mhm. d'une guerre et d'une idée. Mm -hmm. voilà l'homme c'est Henri Dunant un nom suisse la guerre c'est la guerre de Solferino bi am en 1863 en Italie. ak euh, une idée moo xam ne dafa bindoon en substance après quatre ans après la guerre mu ne est-ce qu'il n'y yore pas dans chaque pays ñu mhm. organiser benn euh, kuréel boo xam ne dañuy taxawu doomu aadama en temps de guerre mhm. loolu moo évolué ak euh, ñeent ci ay xaritam ku mel ni Louis Apia Guillaume Henri Dufour Théodore Menoir ñoom mhm. ñu réunion seen biir ñu ne dañuy seen yaa ngi remonté donc bi ñu créé idée boobu noonu mu dem mais à la fin du livre li ci ëpp solo mooy dafa tënk ni euh, taxawu doomu aadama dafa am solo sur euh, un mouvement humanitaire donc loolu moo law quatre ans après bu mm. bi mu créé idée boobu muy dem dem di law ba Sénégal cent ans après mm. euh, ñu créé Croix-Rouge sénégalaise en 1962 idée yi di départ ba 1963 mu commencé exister donc ci biir loolu nag dañuy xam ne dans le monde entier di nga dégg croix rouge léeg-léeg c' est la même chose ak croissant rouge c' est la même chose ak cristal rouge. mais li ko tax a jóg rek. Euh, dafa amoon tamit ay convention yoo xam ne dafa jamonoy guerre mhm. daanuñu respecter lu bari ci la dignité humaine mhm. moo tax ñu adopté woon première convention yi par rapport à l' assistance euh, des blessés de guerre en terre ñu àndaat une seconde convention par rapport à l' assistance des blessés euh, de guerre et des naufragés en mer ñu andiwaat une euh, troisième convention par rapport les prisonniers de guerre ndax bu guerre amee ba pare ñu bëri lañ leen jàpp comme prisonnier mhm. téye comme trophée wala mu am échange ak négociation politique ñun tam dañoo am àq ak yelleef yoo xam ne leen ko war sàmmal mhm. quatrième convention bi aussi bu guerre amee day impacté société civile bi bi nga xam ne ñoo xam ne seen yoon nekkul ci guerre mais loolu day impacté comme li nga wax sànq mhm. la Euh, doomu aadama en en temps de guerre ou bien mu am ay perturbations naturelles yoo xam ne ay catastrophes naturelles la wala yoo xam ne technologique wala chimique moo ko causé. Mhm. donc mission croix rouge li ko tax a jóg moom mooy taxawu doomu aadama dimbali doomu aadama avec les sept principes fondamentaux principes yoo xam ne c'est des principes immuables du changer. Mhm. moom principe bi njëkk bi mooy humanité. dañ ciy wax humanité né du souci de porter secours sans discrimination. le mouvement day dimbali doomu aadama nous sommes pas des vétérinaires nag wax dëgg yàlla mais ci biir mouvement bi am na façon xeetu euh, liggéey kat bu ne mhm. mais taxaw doomu aadama rek moo leen tax a jóg loolu na leen avec toute la ressource qui va ressource matérielle ressource financière c'est la vie que vous protégez voilà tout à fait euh, nekk képp ku am bakkan rek yéen da ngeen di taxaw pour défendre droit am dignitéem mu nekk blessé de guerre wala ak fa munti nekk tout à fait donc boobu mooy premier principe humanité le second principe impartialité donc Croix-Rouge warul faral kenn. Hmm. neutralité ñun dañoo neutre ci lépp loo xam ne ay jongante laal ay xëccoo. Hmm. indépendant dañoo indépendant nag ci suñuy action. volontariat mooy ñun c'est un mouvement volontaire et désintéressé dañoo volontaire ñun ñoo porté volontaire quel que soit notre métier suñu xam-xam suñu mënoon suñu amam ñoo porté volontaire ñëw mm-hmm. unité dañoo booloo parce que croix rouge yëpp ci àdduna bi benn la mm-hmm. te dëkk boo dem benn croix rouge rek la mën a euh, bi day adopté benn croix rouge muy cristal rouge wala muy croissant rouge ak universalité parce que nous sommes le plus grand mouvement humanitaire au monde mhm. qui regroupe de pays dans le monde avec des millions de volontaires secouristes ñoo xam ne dañuy intervenir fépp boo xam ne nit mu ngi fay souffrir te dafa soxla dignité mais comment ça se passe loolu laa bëggoon xam sax mooy ñi nga xamante dañu bëgg a euh, def volontariat ñëw croix rouge voilà mhm. parce que je me rappelle bi nekkee xale dañu daan defal formation croix rouge waa croix rouge dañu daan ñëw euh, daan ñuy jox quelques formations da nga ba da nga daan gis yenn xale yi dañ naan man su Croix-Rouge laa bëgg voilà léegi c'est comment euh, ban processus la soit da ngay après les études tu peux te former uniquement pour Croix-Rouge mais là on parle de d'un travail professionnel peut-être tu auras besoin d'être payé wala da am sa liggéey ba pare am sa formation Croix-Rouge ba pare nekk volontaire foofu di def te yàlla tax comment ça se passe exactement. Ah, sa question boobu dafa tellement pertinente parce que dafa dunduwaale yeneen question ci ah. mais ma jéem a expliquer ci gàttal rek. man lu ci gox man ma dëkk Grand Yoff màggee fa juddoo fa ba doy nii après Croix-Rouge je vais à la base gox boo dem ci Sénégal dans les 46 départements am na Croix-Rouge fii ma nekk Dakar dans le département Dakar dans les 19 communes. foo dem am na Croix-Rouge ak yu fa bokk. Mm. dafa am nag dans chaque commune lu ñuy wax la cellule de base de la Croix-Rouge muy comité local wala camaraderie. Mm. foofu la ñuy foofu la ñuy tàggatee les de l'humanité de l'humanitaire du mouvement humanitaire fa la ñuy jàngalee junior ñun ñii ba ñuy def sax primaire dañu doon encadré ñu jàng kese la Croix-Rouge yooyu. <laughs> <laughs> bi di tourner sama la création. Euh, Croix-Rouge lan et tout ça et c'est mm. très important je pense pour xale yi. dafay indi ay vocation comme yow. Mhm. ni man su ma bëgg naa jàppale doomu aadama. tout à fait tout ñëw parce que. Mhm. Euh, un milieu un peu défavorisé. Mhm. te dañuy prêter yenn nooy par rapport ak wala njàngum tubaab bi wala njàngum catéchisme. mais Grand mooy le Sénégal en miniature. ñun dañoo amoon chance yu jóge woon Ziguinchor am bac ñu affecté leen UCAD. ñu orienté leen UCAD ñu nag bokkaat kuréel ko foofu lañ bokkoon ñu ñëw ñu encadré. donc la PRAO participe sur l'éducation formelle et non formelle des futurs bons citoyens du Sénégal. exactement la ñuy jàngal ci historique Croix-Rouge ak yëpp mais dañuy jàngalaale citoyenneté que mouvement de jeunesse lañ dañuy jàngal muñ tout ce koy jàngal parce que ci ñun am mm. parce que nit ku nekk da mm. tey tey tey tey professeur en santé lu mu réeréer soo jàngul les gestes de premier secours sur le terrain sa biir kër wala ci mbedd bi doo am xam-xam boo dimbalee doomu aadama mm-hmm. doomu aadama comme euh, pour dimbali ko dafa laaj lu xam ko lan mooy doomu aadama lan lañ ko war a dimbalee mm-hmm. professeur lu mu munti aaya bu nekkee ci biti secours rek lay doon donc secours c'est le premier maillon la chaîne de secours euh, dans la mm-hmm. Croix-Rouge mën nga cee bokk soxlawul sax nga am njàng bu réer bu gudd l'essentiel na nga mën a taxaw doomu aadama si benn na nga mën dara bokk na nga mën dara quand tu de tes euh, droits civiques politiques et cetera nga libre di mën ñu adhérer pas quelle que soit ta profession ou bien ta fonction. parce que nous mm. faisons tout avec le cœur. c'est clair ci biir croix dafa am ay travailleurs. de la mm. Croix-Rouge ñoo xam ne Croix-Rouge dañuy selon leur diplôme di leen fay weer bu dee. exactement oh, jamono sax ñu ngi dund lu xaw a tuuti. <laughs> les chansons pour dire que ñoom leen di masoo bu baax di leen nuyu au sunu benn journal yu grand euh, Seydi bi nga xam ne mu ngi ITV croix euh, la bokk secouriste la il habite mhm. donc moom mu ngi ci biir quelle que soit ta profession tu peux servir la Croix-Rouge Croix-Rouge nag à part les volontaires et les travailleurs am na ñoo xam ne c'est les élus ñoom ñooy administration yi si gox goxaan yi mooy doon lim santaran mhm. moom la ñu wooyee les présidents après même suñu présidente euh, nationale bi sax moom elle a été élue ci benn mhm. département donc mun ngeen mun nañ leen embaucher ngeen di liggéey dans une ONG comme mun ngeen nekk volontaire ci kaw ngeen am humanité bëgg dimbali doomu aadama bëgg taxaw doomu aadama pour mu am dignité mais euh, bëggoon naa ñu ñëwaat si déploiement wu ONG yi parce que Amnesty mm. c'est une ONG internationale presque fépp foofu dem ci àdduna bi di nga gis waa Amnesty ñu ngi fa déploiement boobu naka la demee ba Amnesty euh, mun a euh, tas ay branche am ci àdduna bi ak nu ñu def ba egsi Sénégal waaw euh, boo xoolee ñaari ñaari catégorie la. Mm-hmm. dañoo am euh, Amnesty en tant que ONG. Mm-hmm. boo xam ne nii moom moo am existence bi. Mm-hmm. moom mi son siège bi mi ngi euh, Londres. parce que foofu lañ ko créé foofu la Amnesty directeur direct suñu directrice générale. benn française moom moom foofu la nekk Londres. maintenant si réew yi dafay am ay section wala ay bureaux nationaux. Euh, par exemple Amnesty Sénégal euh, branche Amnesty la mais li ñuy préciser mooy section bureau yu pays yi. Mm-hmm. ay association locale la. par exemple ñun fii nii dañu enregistré comme association locale comme association de yi am. Mm-hmm. Euh, fii nii maintenant marque Amnesty la ñuy la ñuy utiliser. d'accord euh, on utilise le le branding Amnesty. Euh, mu am ay euh, ay suggestion ak ay ay obligation mm. par exemple le principe mooy comme croix rouge mm-hmm. man ni may waxee nii au nom d'Amnesty euh, noonu la keneen ak fu mu munti nekk mun waxee aussi au nom d'Amnesty mu nekk benn mouvement boo xam ne ni kooku li muy wax euh, daf may engagé aussi Euh, parce que est un même mouvement benn mouvement bi lañ. benn euh, nom bi lañ yor même liggéey yi lañ yor ak benn philosophie bi. ok euh, mu am ay mu ay membres parce que pays yi réew yi daf ku si nekk ak sa législation. Mhm. maanaam te day jafe nga am benn am benn organisation boo xam ne mun na adapté euh, wala respecter toutes les législations. Mhm. moom moo tax réew mu nekk dafay adapté wu rek dañuy organi créer benn association mu. adapté wu si législation yi fa yi fa nekk. yi nekk si dëkk bi mhm. mais euh, comme maa ngi lay wax maanaam dafa am suggestion maanaam comme membre am Amnesty Global lañ dafa am ay euh, ay règles yoo xam ne nii il faut ñu respecté wu. des règles de base de base. am mu ngi wax léegi euh, indépendance ñu on est obligé de respecter ça. Euh, on est obligé de ne pas être partisan. Mhm. On n'est pas neutre comme la Croix-Rouge euh, parce qu'on prend on prend parti Euh, on prend parti pour les victimes. Mm. Euh, mais on demande également aux, euh, aux États de, de respecter leurs obligations parce que bu ñuy wax droit de l'homme mm. nekkul amnistie moom moo koy créer maanaam heure bu ñu waxee ne Sénégal violé na benn règle wala beneen droit mm-hmm. c'est sur la base engagement yi nga xam ne nii Sénégal jël na ko parce que droit de l'homme nan lay nan lay nan lañ koy créer état yi ñoom ñooy dajaloo ñu ne ah gis nañ ne par exemple am na guerre fii wala am na guerre Palestine. Mm-hmm. am na ay nit ñoo xam ne nii convention de Genève jëlu leen en compte règle yi nga xam ne nii jëluñ leen en am na mais ñoom ñu ngi souffrir mënuñ leen bàyyi noonu ñu ne comme fii am na fay nañ jël nañ tëgg benn convention mais comme état yi kenn munu leen imposer dara bu ñuy engagé wu au niveau international aussi c'est sur le caractère volontaire. moom mooy différence entre état ak nit. Mhm. man mii tey loi yi nga xam ne nii ñu ngi koy voté assemblée nationale mu neex ma dama daf ma dañ ma koy appliqué mu ñàkk maa neex dañ ma koy appliqué. Mhm. j'ai pas le choix en fait. Mhm. mais état yi ñoom loolu amul maanaam état bu jël engagement da ko def si sa euh, teeyaay bakkan. d'accord hmm. bu la neexee nga ne dina engagé wu. bu la neexee nga ne lii mënuma see dugg mënuma see engagé wu. mais du am benn conséquence. du am benn conséquence mën nga aussi ne ah. convention bi texte bi globalement man arrangé na ma mun naa si duggu mais am na ay points yoo xam ne nii loolu moom arrangé wu ma. parce que c' est pas adapté à mon pays wala c' est pas adapté à ma philosophie. wala ñun ni ñu gisee voilà nga def réserve. dañuy ñëw dajale wax ay. Euh, nombre de règlements yi nga xamante ne c'est pour protéger la planète et tout. Euh, ils ratifier euh, convention beeg lépp signé ba mu neex leen ñu jékki-jékki ne bii bokkatuñ ci je prends l'exemple des États-Unis qui parce que day mettre un frein ci économie wam donc parfois mu xam ne day jékki-jékki dellu ginnaaw rétrogradé. yu si bëri yu si bëri du du nekk exactement euh, rétrogradé. Mhm. yu si nekk ay réserve lay nekk. d'accord maanaam mën nga signe convention bi texte bi mën nga signe mais nga ne point bii nii. d'accord arrangé wu moom donc euh, am na benn technique en droit international bu ñuy tuddee réserve mhm. maanaam lépp bokk naa ci waaye lii du ma si bokk mais est-ce que est-ce que est-ce que je vais poser la question est-ce que loolu bokk na si par exemple xam nga yéen Amnesty droit de l'homme ngeen di ngeen di protéger euh, ba si ñi nga xamante ne euh, mooy homosexuels yi par exemple Euh, Sénégal dina ratifier protection des droits de l'homme mais bu ñu egsee à chaque fois ci homosexualité dañ naan ñun lii d'accord ñu ko léegi en tant que ab ONG bu nga xamante ne tey nit ngeen lijjanti lijjanti woo leen orientation sexuelle am comment vous vivez ça et comment vous faites avec l'État du Sénégal. xam nga euh, lépp mu ngi dépendre si obligation bi état jël. Mhm. li wolof di wax àtte bor fay. Mhm. loolu loolu kese la état boo xam ne nii jàpp nga ne man lii nii. Euh, mënuma si engagé wu. bu boobaa kenn du la si demande ay compte d'accord mën nañ la demande si ay compte si yeneen règle par exemple Sénégal kenn du ko ne tey jii nii lu tax def organiser wuñ fi gay pride parce que euh, amul euh, déjà au niveau international <laughs> au niveau international amul convention tey jii nii spécifique si loolu mhm. amul donc am na ay déclaration am na ay résolution par exemple euh, si assemblée générale bi mais loolu amul force obligatoire maanaam duñ ci topp kenn boo ko deful. c'est c'est volontaire. Mhm. Euh, muy boobu affaire homosexuelle yi muy affaire torture muy affaire prisonniers yi euh, muy affaire liberté d'expression wala journalistes yi. souvent bafoué. su souvent bafoué li ci am mooy par exemple am na si tey jii nii bu toogee ne Sénégal adopté na code de la presse. Mhm. adopté na euh, ay convention sur la liberté d'expression. Mhm. nañ ko appliquer. ñun ñu def recherche wane ne Sénégal lu ci bari engagement li mu jëloon ci engagement lu si bari sooxee na ko. Mhm. defu ko bu boobaa ñun ñu génnee rapport ne voilà lii la am ne lii la Sénégal engagé woon. Mhm. lii la si def lii defu ko si. wala lii la si waroon def a un niveau mais àggul foofu. Mhm. bu boobaa rapport bi dafay génn. ñu ne am na si ngi critiquer gouvernement bi. Mm. bu ko defee ñoom ñu mer alors mais mais par exemple yéen bu ngeen defee rapport boobu ngeen génnee ko après euh, gouvernement bi lan lay mel parce que bu fekkente ne yéen bu ngeen defee rapport limite je dirais su ma comprendre mënuloo leen dara su fekkente ne bugguñu respecter benn convention bi nga xamante ne soit ratifié nañ ko wala émettre nañ si ay réserve est-ce que votre pouvoir n'est pas limité quelque part. non ñun par exemple suñu pouvoir mu ngi yem si foofu. Mm-hmm. maanaam mais il y a d'autres parce que Sénégal aussi nekkul benn pays kese. Sénégal dafa bokk ci ay entités yu bari. pays yi nga xam ne nii euh, boo jëlee convention boo gis am na benn euh, instance boo xam ne ni moom moo koy surveiller. mooy surveiller application bi. te Sénégal dafay rendre compte périodiquement mun na nekk tous les quatre ans mun na nekk tous les cinq ans mais chaque fois dañuy def rapport c'est pas vulgariser. coow luy bëriwul noonu coow am rapport am na si li ñuy gën a coow que rapport gouvernement bi mais euh, barki démb barki démb Sénégal def na benn rapport sur les migrants mu présenté ko au niveau des Nations Unies bu boobaa Sénégal day dem ne man maa jëloon engagement ci convention bi lii laa si def lii laa si deful te li ma si deful co jafe-jafe yii moo taxoon defuma ma yii moo taxoon defuma ko bu boobaa ñooñu aussi ñoom dinañ dégg rapport si bi nag ah yow nee nga def nga lii. Amnesty am na defoo lii defoo lii. Mhm. wala Croix Rouge nee na defoo lii Croix Rouge sax ñu ci bëri ñoom duñ dugg si yooyu. Mhm. mais ONG nee nañ lii defoo lii defoo. Mhm. bu boobaa aussi mu joxee explication. loolu waruñ ko c'est c'est très important surtout au niveau international parce que au niveau international diplomatie daf si am solo. te état yi lu ci bëri lu ñuy am ci seen image lañ koy amee. c'est ça que je voulais oui, dire parce que parce <laughs> ONG <laughs> ñoo bokk fi ñu jëm <laughs> ndax état bi comme ni ñuy waxee nous on est en voie de développement ah. qu'on le veuille ou pas dina gën a jëm kanam et on compte beaucoup si dëkk yu mel ni France pour ñu ñëw jàppale ñu et tout ça et je pense que dëkk yooyu tamit bu ñu lay coiffé dafa am benn comportement bi nga xamante ne dañu la fay dugal muy euh, Union européenne muy euh, waa États-Unis wala golfe bi pays du golfe yi dafa am euh, benn ay kano yoo xam ne dëkk bi si la war a dugg pour que ñoom tam ñu mun la taxaw mun la coiffer mun la protéger. Mm. tey bu fekkente ne euh, gouvernement def na rapport wax euh, benn ONG bu mel ni Amnesty def euh, rapport wax. ñoom du leen arrangé ci seen côté image. Mm-hmm. te mun na leen yàqal si. mun na leen yàqal exactement oui. <laughs> waaw lu ci bëri ñu ngi wax eurobond fan yi mm. eurobond yi Euh, organisation ñi ñi nga xam ne ni dañuy lebal état bi. Mm-hmm. li ñuy gën a xool mooy réputation état bi est-ce que bi am mën na fay bor. Mm-hmm. mais pour nga mun fay bor il faut sa économie dox. Mm-hmm. il faut sa pays stable. il faut ñuy changer gouvernement yi maanaam démocratie am fa plus démocratie bi naxas foofu noonu plus yow sa sa risque gën a rëy. te bu ñuy bu ñuy jël risques yi parce que. taux bi ñu lay lebalee. taux bi mun na foor bu fekkee dañ ne état bi dafa bëri risque. maanaam mu ñu ngi joxe de mais mun nañ bañ a fayee comme li xew deux mille vingt ba deux mille vingt xam ne demoon nañ ba ñëpp di dute ci Sénégal. képp ku fay def sa xaalis rek danga naan danaa koy def mais risque am na fa. donc pour comme risque am na fa nag samay intérêt dafa war a bari parce que mën naa perte. Mm. loolu yëpp mu ngi dépendre ci image yi. image bi nga xam ne ni organisation yi def nañ donc ñoom aussi. bu ngeen gouvernement bi ñemewu leen. déet ragaluñu sax. <laughs> mais dañ leen di sóor. waaw dañ leen di bàyyi xel tey jii nii boo mm-hmm. demee ci organisation yooyu noonu. Mm-hmm. en matière bilatérale wala organisation internationale duñ dajee. Mm-hmm. ah ñëpp dañ naan yéen Sénégal yéen a ngi naan nii ngeen mel lii ngeen def lii ngeen am comme avancée démocratie mais organisation yi ñoom nee nañ yéen nii ngeen mel nii ngeen mel nii ngeen mel te li ñuy wax. nekk loo xam ne dañ koy créer mhm. dañ naan diw bërëb sàngam bés sàngam diw jàpp nañ ko dóor nañ ko certificat yaa ngi nii rapport yaa ngi nii journal journaliste yi wax nañ parce que aussi ñun suñu liggéey travail bi ci journaliste yi def daf ci am importance mhm. parce que information yi nga xam ne ni dañ koy publier yooyu bokk na si ñuy collecté mhm. maanaam dafay nekk source après dañ koy confirmer nag parce que aussi heure bu si waxee mu nekk déclaration communiqué wala rapport c'est comme si on remettait notre réputation aussi en, en jeu en cause. parce que j'aimerais savoir oui j'avais une question. si si loolu lañ dem donc c'est euh, important. yéen da ngeen di agir directement bu fekkante ni état bi dafa am manquement vous limiter à ça wala dafay am euh, yeneen action yoo xamante ni dina am ci kaw euh, mu nekk question humanitaire mais mu juge ci état bi aussi directement. est-ce que vous n'êtes pas par exemple man en tant que personne par exemple mën naa am samay problème ñu violer samay samay droit en tant qu'être humain ma ñëw approcher Amnesty pour réclamer dara wala revendiquer benn droit mais j'ai c'est comme si que vous limitez seulement au manquement de l'État ki yi nga xam ne day toucher huma l'humanité en général en fait dafa am ay problèmes yoo xam ne nii c'est structurel c'est global okay. par exemple bu ñuy wax waxu liberté d'expression wala liberté de la presse euh, yooyu globaux yooyu état il faut mu agir si parce que dafay laaj ay réformes structurelles par exemple am na si mënul voter loi am na si mënul jël décret mënul aussi def lenn lenn li mën nañ alerte génne failles yi mais am na prérogative yoo xam ne ni loolu prérogative état la maintenant euh, au niveau individuel mun mm. nañ apporter assistance par exemple si benn journaliste boo xam ne nii il est menacé wala benn personne boo xam ne nii dañu violer ay droit ñun mun nañ ko assister à titre individuel. Mm-hmm. Euh, plus orientation parce que loi Sénégal aussi dafa am ay restriction mm-hmm. maanaam nit bu bëggoon dem tribunal man bu ma ñëw bu nit ñëwoon amnistie ne dañoo violer sama droit dama bëgg a dem tribunal. Mm-hmm. amnistie mënul substituer nit ki. nit parce que am na yoo xam ne ni loi bi dafa tëgg ni nit ki moo koy defal boppam. Mm. par exemple amnistie mënul porter plainte sa surtout mm-hmm. il faut yow nga porter am mais si mën na la jox orientation. mun na la dimbali ci avocat mun na la yóbbu ci tribunal expliquer la aussi préparer la orienter la mais il vous arrive d'avoir des négociations directes avec l'État si yenn euh, kii convention yoo xam ne yaa am désaccord wala am na manquement parce que comme li Bijou wax sànq am na euh, signa loo leen di signale du leen arranger donc État mën na woo amnistie pour négocier ak moom expliquer ko par exemple ne ko rapport bi ma am ak waa France par exemple manquement bi moo ci am mais lii lii moo ko waral parce que peut-être du suñu économie du arranger suñu pêche donc amnistie kaay ñu waxtaan bul def rapport dinañ <laughs> <laughs> ko waxtaanee dinañ ko waxtaanee quoi est-ce que il vous arrive d'avoir des négociations comme ça directement avec l'État. non dinañ dinañ waxtaan <laughs> mënu ma ko tuddee négociation. ok parce que négociation dafay dafay mel ni dañ la naan bàyyi. lii euh, du demee noonu. Uh-huh. jàpp naa ne euh, waxtaan bi gën a rëy mooy waxtaan bi ñuy defee penc mi euh, maanaam am si teg indi état bi aussi. am na ay service euh, yoo xam ne ni ñoom loolu mooy seen liggéey maanaam liggéey affaire droit de l'homme hmm. heure bu am na si génnee rapport mun nañ am euh, ay information yu ñu si indi parce que par exemple ñun mun nañ génnee rapport euh, tey mais pour des raisons matériels hmm. le temps bi rapport bi di génn hmm. situation yi évolué par exemple suñu rapport annuel ñu ngi koy génnee au mois de mai mais rapport bi ñu ngi koy tëj mois de décembre. d'accord entre mois de mai ak mois de décembre ay mbir mun na cee xew. peut-être bi mais euh, bi ñuy euh, waxtaan yi am naa sama beneen invité bu nga xamante ne egsi na euh, moom nag mi ngi nekk enfant soleil ñu lay nuyu bu baax. di la dalal ci plateau bi bienvenue et merci ci ni nga accepté suñu invitation bi xam naa sama bukki bi moo la maat. <laughs> jërëjëf euh, Bijou maa ngi lay nuyu. Mhm. di nuyu ñi ma fekk ci plateau bi yëpp ah, di la jër jaajëfee ci lii nga ñu dalal euh, en li nga dalal enfant soleil par ma voix. Mhm. merci. voilà euh, donc dinañ ñëw ci euh, euh, ni ngeen di liggéeyee ak ONG yi biir Sénégal ak lan lañ leen di apporter en tant que association bi nga xamante ne mi ngi agir pour le bien-être des enfants autistes donc si kanam lay nekk ak suñu invité bi léegi bëggoon naa ñëwaat ak yow Moustapha ci déploiement wu Croix-Rouge parce que Croix-Rouge bokk na ONG yi nga xamante ne gën na fi si ci àdduna bi. Mm. et euh, fépp foo dem amul fooy dem croix rouge cest à bi ku ko gis rek euh, tag tu di ça c'est la croix rouge. boobu naka la demee ba si àdduna bi comme Sénégal ni nga ko waxee ci 45 régions yi euh, département yëpp yéen a ngi fa nekk di teg seen ay actions déploiement croix rouge naka la évoluer ci àdduna bi ba egg ci foofu tey. waaw loolu yàgg na parce que croix rouge bi muy exister euh, ba ñuy créer Croix-Rouge dafa yàgg cent ans après muy soog a yegg si Sénégal mais Croix-Rouge sénégalais nag dafa am ñu ko sanc hmm. tey suñu siège national mu ngi nekk euh, en en ville biir ville euh, Roosevelt ginnaaw camp Dial Diop hmm. dafa am organisation pyramidale boo xam ne comme société nationale la dëkk hmm. boo dem dafa am lu ñuy wax les sociétés nationales li ko ñi ko ëmb ñu ngi tuddu la fédération internationale des sociétés nationales de la Croix-Rouge et moom mooy FICR. Mm-hmm. am na tam beneen branche bu ñuy woowee CICR. mais mm-hmm. ku ci nekk danga xaw a spécialisé wu ci ni ngay taxawoo. Mm-hmm. léegi nag croix dafa am euh, société nationale par exemple bu Croix-Rouge sénégalaise tey dirigée par euh, l'ex-présidente madame Bafou Ba. dafa am euh, gestion pyramidale de haut en bas. am na ressources humaines am na ressource matérielle am na ressource financière. mais comme sa question bi dafa jege ressource humaine bi. moom ma wax ci parce que jamono ji li ëpp ci waa Croix-Rouge ngay dégg mooy les volontaires mooy comme man mooy comme suma gars yi nekk à travers tout le Sénégal dans les 46 départements donc volontaires yi ñoom ñoo jóg signer engagement jënd carte de membre adhérent ñu ne ñun dañoo bëgg bokk Croix-Rouge ngir donner le minimum de notre temps libre à la Croix-Rouge pour assister l'humanité mm-hmm. su ko defee Croix-Rouge quelque part nous sommes aussi auxiliaires du des pouvoirs publics mm-hmm. bu ñu nguur soxlaa daf ñuy réquisitionner ñu tam ñuy réquisitionner suñuy volontaire à travers euh, le Sénégal léegi nag volontaires yooyu noonu dañuy signé engagement mais nekkul ni ñoom ay travailleurs Croix-Rouge lañu dañuy signé seen engagement pour un temps bien donné donc fépp foo dem dañ leen di mën a woo en cas de besoin dañuy participer nag dans tous les programmes yoo xam ne dafa laaj aide ak nga sànni ñu xeer mais ñun dañoo régloo c'est que dafa am benn noo leen ñuy xoolee mais garaaw <laughs> li ci kanam rawu li bët dañ on va même parler de fiscalité et vous allez <laughs> voilà ñun nag ko expérimenté comme ñëpp voilà fépp nekk wax naa ko sax donc nous sommes dans un mouvement volontaire unique et désintéressé euh, boo ci bokk ñu ci bokk désintéressé euh, boo ci bokk ñu ci bokk dañ la forcé après nga signé sa engagement saa yoo bëggatul bokk sax bëgg maa ngi ñëw <laughs> wàllu wàllu impôt ak fiscalité yooyu yëpp mun na ci voilà sauf li ñu leen di baal voilà léegi nga xam ne nag c' dans le volet humanitaire. Mhm. Ah, état bi daf ñu koy exonérer daf ñuy baal lu bëri. parce que bu ñu ko jógee dugg si port bi. Ah moo koy jot te dafa war a dem si biir euh, population bi. waaw loolu mën nañu bind état waaw rajo sénégalaise mën na bind état. état exonéré ko may ko loolu mu bagage yu ñu dugg parce que loolu c' est pour même l' intérêt de de état du Sénégal en tant que tel. <laughs> waaw dañu fay ñun toutes les charges Euh, parce que euh, association règlement Sénégal par exemple dafa dafa catégorie association yi. Mm -hmm. association normale. ñuy mhm. yoo xam ne ni dañu war a fay taxe yëpp. dañu war a fay taxe ñun dañuy fay TVA impôt sur le revenu sur les sociétés yëpp duñ société donc tous les autres euh, euh, charges dañ koy fay euh, mais am na association yoo xam ne duñ fay loolu. Mhm. dañuy am exonération. d'accord. Euh, mhm. mais loolu pour nga am ko. il faut nga bind euh, ministère de euh, l' ñun <laughs> am am na ñaari ñaari facilité yoo xam ne nii. Uh-huh. Euh, duñ ko jël. mooy bu njëkk bi mooy bu fekkee da nga demandé nekk association d' utilité publique. Uh-huh. maanaam la ngay dem ci état bi ne ko man. Uh-huh. yow am na liggéey boo xam ne yaa ko waroon def. man mun naa ko def sama wàll. Euh, mais pour ma def loolu il faut nga dimbale ma si. d'accord nga déclaré ma. Euh, mais pour ma def loolu il faut nga dimbale si. déclaré ma d'utilité publique. Mhm. boo ma déclaré d'utilité publique. Mhm. mun ngaa jël recevoir de l'argent de l'État. mun na la jox directement de l'argent comme finance subvention. mun na la defal ay exonération mhm. euh, sur le matériel wala si yeneen charges donc am na association yoo xam ne soo retour d'utilité publique mm-hmm. am na si du jul euh, deful loolu parce que non seulement duñ jël xaalisu état bi mm-hmm. euh, beneen catégorie bi mooy ONG yi mm-hmm. ONG yi aussi duñ ay association ay organisation yu gën a mag lañ ñooñu euh, duñ jël sax état bi mais dañuy investir maanaam dañuy def ci développement communauté yi ñoom ngay gis ñuy tabax dimbali population yi wala financer état bi wala ne état bi ñun am nañ budget nangam si at bi mm-hmm. xoolal domaines yi nga xam ne nii bëgg nga ñu financer ko ñu ñu financer loolu mm-hmm. euh, organisation yooyu noonu dañuy am accord de siège généralement ak ak ak état bi mm-hmm. mais yooyu risque bi mooy état bi état bi aussi mun na xëy rek suspendre accord de siège yi Abdoulaye Wade defoon na ko fi xëy rek ne organisation yi ñoom ñooy jaxase dëkk bi. Mhm. Euh, surtout mooy bi je pense Y en a marre bi commencé. noonu euh, mooy organisation yi ñooy jaxase dëkk bi donc ñi amoon état di accord de siège yëpp mu ne suspendre na ko parce que accord de siège c'est comme benn autorisation d'intervention la. Mm. état moo naan waa ñëwal nga intervenir mais si contrat buñ signé. mu xëy rek ne comme ñu ñoo moom suñu dëkk ñoo moom da ngeen ñëw jaxase ko léegi suspendre nañ accord bi donc état bu ko neexee leen à un moment donné. waaw mun na ko suspendre. ok euh, boobu ba léegi am na organisation yoo xam ne ba léegi jotatuñu parce que bi Macky Sall li ñëwee changé noonu la ko bàyyee euh, ce qui fait que dafa wàññi woon lu ci bëri seen capacité d'intervention. parce que dafa mel ni dañ leen dugaloon ci benn euh, insécurité maanaam illégalité boo xam ne nii c'est c'est c'est mm-hmm. dañ la naan yow mën ngaa intervenir. mais amoo autorisation amoo këyit amoo dara. vous êtes limité. ok et ah ñi ñu ñu bloqué woon comme gouvernement bi changé na dëkk bi changement la woote bindaat leen. waaw war nañ waaw mën nañ bindaat ah ñu bind war nañ bindaat. avec vous qu'est-ce qui vous sécurise en quelque sorte. ñun association normale lañ. Hmm. Amnesty association ay nit ñoo bëgg a bokk Amnesty ñëw jënd carte membre adhésion. Hmm. ñu ne nañ def am Amnesty mi ngi nii. Hmm. donc tey jii nii bu ñu ko bëggoon tas. procédure association lañ koy tase. Sénégal liy tas as procédure association mooy. tribunal état bi mënul jël rek euh, tas ko amoon na temps sax ñuy vérifier ndax am nañ accord de siège am déet xam naa temps yi dañ ko bëggoon. dañ leen bëggoon dëpp dañ <laughs> ba léegi. déedéet ci Macky Sall sax. ah si nguuru président Macky Sall nguuru Macky Sall sax xawoon nañ jaxase kiyaat xoolaat. Mm-hmm. ba wooñu mm-hmm. nañu ana seen accord de siège. ñu ne ñun récépissé am amnistie la ñu am. Mm-hmm. récépissé organisation. Euh, donc loolu bokk na si aussi li nga xam ne nii dafay protéger organisation yi. d'accord mais daal ñun moom du ñu tooñ duñ bu ñu waree fay fay li ñuy wax mooy yéen a waxoon lii da ngeen ko def def leen. Mm-hmm. ci respect droit de ci respect droit la l'homme. si c'est c'est aussi en fait c'est aussi simple que ça. Mm-hmm. heure bu ñu jógee rek dañ naan Sénégal gouvernement Sénégal du nag. Abdoulaye Wade wala Macky Sall parce que c' est l' état état moom mooy engagé wu. d' dinaa def lii bu fekkee yoon nag danga nga engagé wu ne dangaa def nangam walla sàngam ñu toog diir ne la ah li nga waxoon defoo ko. Mm-hmm. nga merci wala nga xaw see. Euh, kii tuuti. mais si vous êtes non avant avant ñuy dem euh, foofu. Uh-huh. bëggoon naa madame Aïssatou Diaw Gueye nga xam ne uh-huh. moo ñu rejoindre nekk secrétaire général euh, de l' antenne Dakar des enfants soleil monde moom nag mi ngi nekk diplômé Cheikh Anta Diop Dakar faculté sciences éco ak gestion. Euh, nekk gestionnaire consultante en gestion aussi administrative financière et comptable euh, donc moom en euh, encadrement des associations matière de développement économique et social loolu lay def bëggoon naa xam ci naka ngeen di liggéeyee ak ONG yi pour mener à bien vos actions. waaw merci beaucoup Bijou foofu bëggoon naa quand même indi ci leeral. Mm-hmm. ndax ñun association lañu Enfant Soleil. mais ba fi ñuy wax ak nii liggéeyuñu ak ONG. ok voilà. mais vous avez vocation à devenir voilà. une ONG. non nous sommes une association. légalement constituée une grande association. Mmh. qui travaille avec ses partenaires. Mmh. donc aujourd'hui Enfant Soleil euh, dafay liggéey ak ay partenaires. d'accord donc avec le mécénat. parce que xam nga aujourd'hui euh, euh, euh, enfant soleil dafa nekk lu nga xamante ni dafa nekk ci mission boo xamante dafa laajte dafa laaj ay moyens ndax xale yi nga xamante ne ñu ngi leen di jàppale muy xale yi nga xamante ni ils sont atteints de trisomie 21 d'autisme DMC infirmité motricité cérébrale ñooñu seen prise en charge dafa metti dafa diis te booy xool Sénégal fii ñi nga xam ne daf leen daal ñi ci ëpp dañu nekk ay néew ju doole. ñun ah, mu nekk initiative wu quelque parents yu taxaw. jël seen doole bopp seen ressource propre di ci dox. ubbeeku nag ba parents yi di leen di rejoindre. ci loolu nag ci lañu noué ay partenariat principalement avec le privé. ndax xam nga société yi. Mhm. entreprise yi ñu ci bëri ci seen gestion dañuy faral di. def activité yu mel noonu ay dañu ay dotation sociale yu nga xamante ni activité cause yu noble yooyu ñoom dañ ciy jàppale euh, ut en même temps aussi di utaale ay visibilité mm-hmm. voilà donc ci loolu la ñu nuye ay partenariat société entreprise bu bëri ñu koy wooyee le mécénat ñu ñuy jàppale ba fii ñu toll nii état bi tamit mi ngi ci mi ngi ciy bay waaram. Mm-hmm. waaw ba récemment sax euh, macha allah donc euh, nous avons eu euh, ils contacté. pour mm-hmm. xool lu ñu leen mën dimbale parce que boo xoolee ñun li ñuy def wàllu état bi la. Mm-hmm. ñenn ñoo leen contacté. au niveau du ministère de l'éducation pour xool naka la waaw xool exactement ñun li ñuy def lan la parce que ils sont interpellés. parce que booy xool xale yi. enfant sole li ko tax a jóg dañu gis ne xale yi ci suñu Sénégal prévoir ñu leen fenn. Mm-hmm. mën naa ni que moi j'ai reçu euh, je sais je sais pas tur bi fu may rëcc mu may mm-hmm. nekk enfant autistes yi ils ont une certaine prise en charge mais dans les écoles privées mais ba primaire bi jeex ba école primaire jeexe après amul programme. du ñëpp sax mën na li ma la mën a waxee. biir ju mooy pour bu parent yi mënee fay. ci public bi. bëriwul te même euh, école yi leen di prendre en charge parfois tu as l'impression que prise en charge bi des na carrément foofu lay ñëw foofu lay ñëw parce que foofu il faut ñu duut fa baaraam bu baax mhm. ndax tey boo nee privé bi boo xoolee par exemple ñaar wala ñett école privée ñoo fi mhm. nekk d'éducation spécialisée ñi nga xam ne ñooy jël xale yooyu mhm. te mais ñooñu du ñëpp ñoo ci mën a dem tey boo xoolee minorité la jur yi nga xam ne tey mun nañu dugal seen école yooyu xale yooyu seen école ci école yooyu parce que dafa cher ñi nga xamante ne tey ñoo ngi góorgóorlu di wax ne dañuy def inclusive mooy yeneen école publique yeeg yooyu dañ koy jéem mais mënuñu ko parce que amuñu personnel bu spécialisé formation bu baax seen njort ni ñu koy waxeete sax seen euh, volonté taxaw na mais bu ñu demee ba ci biir du ñu mën a dem ndax xale bu ñu duggee du ñu xam nu ñu leen di def donc partout ci tissu euh, éco euh, social bi yëpp foo mënti dem muy école muy hôpital fépp xale yi dañuy am ay dañuy am ay jafe-jafe. pour ñu jël leen correctement en charge. ci loolu ñun enfant soleil ci la ñu taxawee. Mm. daal di nuyu ay partenariat avec tout ce mécénat là ñu ñuy jàppale ñu fexe bay construire suñuy centre bopp. Mm-hmm. comme par exemple ñu ngi leen di wooye les les maisons mm-hmm. jot nañ ci defar benn fële sax Malika. donc mu nekk genre hôpital du jour ba ren ci sax dañoo fas yéene incha allah ubbi école. ah boo xam ne xale yi dafay faju à côté ñu koy gérer ba pare ñu koy jàngal école di ko jàngal ëllëg mais lu mu mën a moom mais seen action boobu euh, c'est tellement long pourquoi vous allez pas vers les ONG pour euh, ñu mun leen ñoom tamit jàppale ngeen mun a def euh, des maisons jaunes benn affaire boo nga xamante ne fépp foo dugg biir Sénégal da nga ko fay fekk parent bu nga xam ne am na doom bu autiste wala mu am IMC day mun a xam ni man sama doom bu ma ko juree mun naa ko yóbbu fii si maison jaune yi ñu ma koy traiteel te mm. aussi dina jàngaale incha allah bijou ci loolu la ñu jëm mm-hmm. ndax fi mu nekk nii mën naa ne le ne enfant soleil toll na fu nga xam ne yaatu na ubbeeku na macha allah yow yaa ngi nii gis nga yaa ngi nii di ñu woo macha allah di ci jàpp ci combat bi. ndax lii ngay def nii tey yaa ngi ñuy defal sensibilisation. Mm. yaa ngi ñuy defal campagne. ba tax tey ku la dégg xam ne lii am na mën a ñëw jàpp ci. Mm. ndax tey jii nii dañoo ubbeeku. ñëpp képp ku nga xamante ni am nga yéene ñëw jàpp ci ñun ñu ngi lay tàllal suñu loxo ndax ñun bénévolat la ñuy def. ñaari ONG ñaari <laughs> voilà budget à coup de milliards mais mais bëggoon naa xam aussi naka ngeen di choisir euh, seen domaine d'action est-ce que domaine d'action Croix-Rouge par exemple c'est spécifique à chaque pays ak euh, bu ngeen di réunion nan ngeen di choisir daal ne ñun Croix-Rouge Sénégal fii la ñuy dem pour agir fa. ah euh, xam nga am le principe de l'unité boo xam ne. fépp dem ci àdduna bi benn Croix-Rouge mu am ci benn dëkk. Mm. mais Croix-Rouge Sénégal nee naa la sànq auxiliaires des pouvoirs publics et que où le besoin c'est de cent et c'est cent ñun sax dañuy jiitu nguur gi ci yu bëri après def ay rapport remonté ko des xam ne am na catastrophe naturelle fépp foo xam ne am na guerre Sénégal nous sommes présents dans tous les fronts même bu dëkk bi yëngatoo dëgg manifestation yi passe yëpp gis ngeen ko Croix-Rouge moo nekkoon sur le terrain nekk a cheval entre les forces de l'ordre Euh, les forces de défense et de l'ordre ak les manifestants ñun ñooy faj ñii ñooy faj ñële parce que ñun su suñu devise en tant que secouriste on doit sauver sans y ñu ñun dañu neutre moo tax population bi sax du ñu accepté nangul na ñuy teew te du ñu mën a euh, prendre parti loolu noonu dañ koy sant yàlla mais nag am na ñoo xam ne comprendre ñu mission croix rouge des fois ñu teew ci benn mbir boo xam ne parce que di euh, doon na ay déchets yu bëri yoo xam ne dañoo demoon fii ci banlieue bi doon euh, jàppale ak sapeur pompier ñu ànd liggéey pour enterrer les personnes décédées gars yi ñu sànni ay xeer. pourquoi donc yàlla parce que incompréhension la woon. ci bëri mooy euh, ñu bëri dañoo foogoon ni croix rouge day jëlee feneen. ay nit yoo xam ne kenn identifié wu leen kenn xamul leen rey ñu leen andi ci ay sëg yoo xam ne sëgu jullit la par exemple ñeen kenn du leen fi dugal. est-ce que du bi. waaw croix bi xam nga àndoon na amal gàmm yàgg ci histoire moo tax ñu permettre dëkk bu nekk dafay tànn sa benn signe distinctif. soo xoolee dans le pays arabo musulmans ñoom ñu jël croissant rouge le croissant rouge linéaire la. ñu koy jël. donc le Christ rouge dafa nekk Israël mais la plupart dans les pays euh, laïcs ou catholiques chrétiennes ou protestantes ñoom croix rouge bi lañu adopté mais croix bi nuroowul nag ak croix chrétienne parce que croix chrétienne bi boo xoolee benn bande bu verticale bu gudd la ak beneen bu ndaw bu horizontale mais bii nag c'est comme ces cinq carrés superposés yoo xam ne dafa mm. tolloo donc trois carrés d'une manière horizontale yu tolloo ak benn ci kaw benn suuf donc loolu noonu origine bi mooy comme Henri Dunant moom mi créé croix rouge ak quatre xaritam yooyu ma waxoon le drapeau suisse c'est une croix blanche sur fond rouge et le pour rendre ko hommage moo tax ñu intervertir drapeau bi def ko croix rouge sur fond blanc mais mais damay damay des foofu toujours ci croix bi xaw ma ndax foofu nga jëm dafa mel ñoo bokk pensé yow maa ngi yow <laughs> sama question nga posé léegi sax maa ngi bokkoon ndax moom <laughs> waaw dafa sàkkal sama lañ ci parfois euh, nit yi dañuy ne Croix-Rouge la sont là pour dire que dañuy def humanitaire mm-hmm. mais leur mission c'est d'évangéliser les populations c'est-à-dire dañuy bëgg xëcc nit ñi mm-hmm. ci ci christianisme changer loo leen religion mm-hmm. moo tax am na ñoo xam ne dañuy réfractaire ci ay action wu Croix-Rouge est-ce que loolu da ngeen koy dund fii nii bés bu yàlla sàkk dañ koy dund parce que euh, nit nit rek la mën a doon mais bu amul information day nekk sur la défensive mais moo tax antenne yu day baax ñuy éclairer quest la Croix-Rouge sa mission lu ko tax a jóg ak ñun ñu fay liggéey xoolal sama tur maa ngi tudd Moustapha sant Mendy. waaw ça m'a fait tiquer en fait. nag quelque part euh, dafa am lu ñuy wax les mouvements de jeunesse les mouvements à foulard bi Croix-Rouge bi nga xam ne ci la am na scoutisme. am na guide am na éclaireur am na pionnier am na CBAV am na Croix-Rouge même euh, am na sax scout musulman léegi ñun euh, Croix-Rouge. day tax xale bi su ñëwee bokk moo dañuy sensibiliser dans toutes les écoles du Sénégal mais wax naa la fépp foo dem am na Croix-Rouge mm. dañuy sensibiliser di wax xale yi kaay leen bokk xale yi bu ñu bokk waaw dañuy wax lii mooy croix lii moo ko tax a jóg mm. mais surtout ñu jàngal leen la devise de la Croix-Rouge jeunesse mm. Croix-Rouge jeunesse am na Sénégal am na Gambie ak Guinée-Bissau mais c'est entier devise Croix-Rouge jeunesse euh, bu ma ko bu ma ko permettre ma gis tuuti nga dégg L'infirme, la malade sont mes frères, l'orphelin, le pauvre, mes cousins. Mm -hmm. Mon action est sans frontières, ma race universelle, ma patrie est le monde. Mon devoir est le bien, ma couleur est un exemple pour tous. Le malheur de chacun est le mien, mon bonheur partagé avec mes frères. Sénégalais, je dois être modèle, disponible, je dois être au service de l'humanité tout entière. Union, fraternité, solidarité pour le bonheur de tous les peuples. est-ce que loolu dégg nga ci benn connotation religieuse. non <laughs> non mais c'est vrai que nag auparavant bu leerul woon ci bopp nit yi boo mosaan dégg croix rouge rek en tant que xale da ngay foog ni école catholique la. man avant ñu may expliquer lan mooy mission croix rouge dama foogoon ni catholique yi rek ñoo fay dem ak croix rouge bi automatiquement en tant que sénégalaise da nga naan lii école catholique la comme sànq sama question dama bëggoon laajte yéen nan la ñuy jotee ci yéen par exemple dans les cas comme man par exemple ma am problème wala xeex bu ndaw am. am na ñu bëri dañuy woo sapeur pompier mais souvent croix rouge day ñëw intervenir maanaam yéen dañuy dañ leen di woo directement wala da dañ leen di signaler benn problème am na ngeen ñëw et est-ce que vous avez pas des problèmes ak sapeur pompier doo doo leen bokk même mission <laughs> parce que croix rouge souvent bu cas temps de guerre amee wala problème am yéen bu ñu leen gisee rek xel day dal c'est comme si euh, la maman est venue dañuy am kii réconfort bu ñu gisee croix rouge dañuy dañuy voilà on est apaisé ba tey bokkul ak regard ñu am ci sapeur pompier que yéen seen diggante du am daje du am confrontation ci mission yi. su sunu signe dafa leer dafa fës. Mm. boo gisee croix rouge wala croissant wala cristal rouge. ñun ci boppam day dalal suñu xel ñun suñu bopp parce que on doit sauver sans y succomber loolu mooy suñu devise sapeurs-pompiers ñoom seen problème ak ñun ci différence bi amuñu problème sax mais ci ci bi la euh. ñoom ils doivent sauver ou périr ok ñun on doit sauver sans y succomber bul fàttali ne yàlla yow sax di nga bokk croix si waaw encadrement bi nga am ko donc yow bi doo militaire doo paramilitaire yow civil bi euh. nga bokk pour dimbali ci benn lieu moment donné ak benn temps hmm. donc on doit sauver juste sans y succomber hmm. ñun dañ lay jox matériel tu es volontaire on te donne du matériel parce que c'est le volontariat c'est pas du bénévolat. Mm-hmm. la jox léegi pour nga dimbali taxaw doomu aadama. léegi nag ñun pour nga am accès ñun nee naa la fépp foo dem ci gox bi am nañ fa représentant am nañ fa responsable am nañ fa ay jeunes am nañ fa ay aussi ay volontaires da ngay bind bataaxal même dans le privé ñun bu toogee nii en temps de paix. daan na jàmm yàgg. vous avez un numéro vert par exemple am ngeen numéro vert. ci nawetaan ñu ngi ci nawetaan yi ñu ngi ci euh, lamb ji ñu ngi ci circulation bi ah même des privés. même la semaine dernière woon su ma leen xamee sama kermeesu école doom yi. ñuy ñëw di leen wan ay gestes de premier secours. Mm-hmm. di jàngal xale yi a affaires yu important. ci laa leen rencontré. ok pour euh, pour mun euh, donc on vous écrit avant. parce que y a la part y a ce qu'on appelle la procédure administrative boo mm-hmm. soxlaa kuréel mën nga ñu bind bataaxal. ñu tontu la ak beneen bataaxal boo xam ne dañuy fiche ma yan matériel la ñuy soxla yow ñu organiser pour ñëw dimbali la. donc par exemple voilà si je m'explique par exemple su ma amoon problème vite fait wala ma am mbooloo accident am même si am na sapeur pompier mais su ma soxlaa croix rouge. fekk bindu ma leen à l'avance. aw ma numéro waaw numéro bi croix rouge fii am na lii est-ce que vous pouvez venir. est-ce que voilà. dans est-ce qu'il y a un numéro vert bi waaw. dans certaines zones. Mhm. Euh, parce que la logistique matérielle toutes les ressources matérielles financières ak humaines. ñoo leen gën a oyof tànk daal. ñoo leen di woyofal lépp. <laughs> waaw ñoom ci état lañ bokk carrément mais ñun état daf ñu subventionné rek. daf ñuy jox matériel daf ñuy jox xaalis mais du dekk lu besoin yëpp mm. moo tax fu doole sapeur-pompier ak ñun duñ ko am mm. am nañ ambulance mais ñoom ñoo ñu ëppale foofu mm. am nañ ay secouriste mais ñoom a organiser côté logistique ak tout ça ñoom sax dañoo innové parce que dañoo gis ci ñun roy dàq lan nu def <laughs> dañuy yor ah, ñoo <laughs> bokk liggéey bi ñoo bokk manifestation su amee gàmm su amee màggal euh, lépp lu am ñun ñu on travaille pour que ñun ñoo jàng premier secours ñoo bokk liggéey bi mais da ngay gis nii léegi ñu doon ay moto. yoo xam ne yaa mm. benn infirmier wala benn médecin wala benn secouriste accident am na fell da dem te nga gis sapeur yi si def les premiers soins joxe contrat parce que dans le voilà si secours dafa am solo la mm. xam ne da war a def pour ñiy andi matériel bi gën a war euh, balaa ñu ñëw dimbali ko nga xam ne da soxla alors monsieur Seck naa ñu ñëw aussi ci mission spécifique yu Amnesty est-ce que Amnesty ci dëkk yëpp ñoom ñoo bokk mission bi ñuy def wala par exemple bu ñëwee Sénégal am na dafa mission bu nga xamante ne bu spécifique la ak noo leen di choisir par exemple quand vous êtes au Sénégal yan domaine ngeen di ngeen di intervenir. waaw euh, pays bu nekk am nga possibilité choisir sa euh, sa priorité. Mhm. par exemple Sénégal am na membre am na si ñoom ñooy choisir priorité chaque année. Mm -hmm. chaque année dañuy def assemblée générale. Euh, définir suñu priorité yi nga xam ne ni si li ñuy liggéeyee si at bi. année bi lan mooy seen yi par exemple on va travailler si si si albinos yi. Mm. Euh, parce que ñoom aussi euh, benn situation diffère difficile la ñuy la ñuy dund. Mm-hmm. surtout cancer. de la peau de la peau bi ñuy am parce que produit yi dafa soit dafa cher. wala toujours disponible mm-hmm. donc li ñuy fexe def mooy plaidoyer Euh, pour euh, que ñu subventionner produit yooyu noonu nga xam nañu ñun dañ koy utiliser. Euh, parce que ñu su bëri du ñu du ñu gudd fan ndax loolu noonu. conseil mm. gis na Sénégal ni mu tàngee ni mu amee naaj. donc te te ñoom amuñ. amuñ exposition médiatique boo xam ne ni hmm. dina leen permettre ñu def ko. donc bon tout cas y Keita qui fait un travail remarquable par rapport à ce domaine. parce que chaque année euh, mi ngi defar ay cartes de Noël carte de vœux de Noël euh, daf koy commercialiser ku nekk lu la neex nga koy jëndee y a pas de prix fixe et bénéfice yu mu siy c'est pour acheter des produits. Hmm. pour jéem ko yóbbu si albinos yi donc je pense que mënuñu wax te def ñu. c'est par rapport hmm. ngeen liggéey ak moom. oui oui a y aussi. yu nga xam ne nii. Euh, ñoom il il s'engage si côté seen côté pour euh, di leen di leen sensibiliser wax leen nan la ñuy nan la ñuy dundee yooyu donc affaire albinos yi suñ priorité yi la bokk euh, prison. Mm-hmm. la situation des prisons. Euh, c'est vrai que. ça vous avez du pain sur la planche. Mmh. prison Sénégal mm-hmm. surtout ñu construire prison parce que euh, problème prison yi fii. Mm-hmm. lu lu lu bari la. premier problème bi mooy amuñ bâtiment boo xam ne ni dañ ko tabax pour prison. ma ñëw ce que jàpp nga ni Sénégal benn président dina fi construire prison parce que dans l'intellect sénégalais. <laughs> Euh. li ñu gëm dëggantaan mooy que prison boo ko tabaxee yaa fay njëkk a mais président dem na prison ba pare. dem na ba pare kon du ko ragal. <laughs> Ah? na tabax école na tabax école. quand on une école on ferme une prison. <laughs> c'est vrai mais bon quand même il faudrait que prisonniers yi aussi ñu respecte seen droit yi. ndax boo dee xool ñu dugg prison ba génn suñu lay wax condition yi. condition yi waaye c'est atroce si la ñuy mhm. c'est juste que prison tooñ bi am nga dette bi nga xamante ne war nga ko fay par rapport à la société mais ça ne veut pas dire que nag. amuloo mhm. ay droits. en fait traite ni ñu leen di traité. dafay conditionner aussi ñoom seen retour ci société bi. Euh, parce que fii nii déjà Sénégal ni ñu gisee prisonnier dafa dafa xaw a métti euh, dèjà ku ñu jàpp rek jàpp nañu yow yaa def. Hmm. Euh, li li waa ji na wax présomption de culpabilité <laughs> moom la ñu de culpabilité. dañ la koy nga yaa tooñ. te li nga xoolal suñu système dafa permissif tey jii nii buñ ñu jàppee diw nit euh, journaux yëpp bindu ñu ne hmm. jàpp nañ ko lii lañ ko jàppee. Hmm. ñaari fan ñett fan semaine dañuy dem ba ci détail yi. mais bu ñu demee ba libéré ko. du ñi see bind sax lu bari mm-hmm. ñi si bind sax du bëri. bu dee dañ laa seetal tam kenn du ne seetal bu dee dañ laa seetal waxee dinañ ne ah boo demee daa bokk si gars yi rek wala dafa ko romb wala dafa a bëgg a gëm de ñun ñii dañoo sikk. mais yow aussi des prisons kii lu mu wax sax sànq mooy euh, école yi ñu war a tabax y a des prisons modernisées nga xamante ni prisonnier bu ñëwee dina jàng nañ ko euh, rééduquer waat je peux dire euh, ki nga xamante ne nii dafa doon def ñu jàngal ko lecture bi am na ñoo xam dañuy dem ba prison sax amaat fa beneen métier mm-hmm. da nga koy gis yeneen dëkk yi nga xam ne waaw voilà day nekk dëkk yoo xam c'est des pays développé dañuy jël seen prison yi modernisé ko defar ko yaa le minimum de confort mais dañ lay jàngal métier yoo xam ne soo génnee facilement da ngay insérer waat ci société bi waaye ça aussi c'est important li ñuy li ñuy tëjee fii dafa yomb ah, hmm. yomb <laughs> ba léegi mu ngi dans de détention ma hmm. ko ñaan yàlla mu gaaw fa dé Birama Niang nekkoon un volontaire de la Croix-Rouge bu nekkoon Cameroun donc pour li wax noonu sànq rek mooy technique ci yenn détails ne après dañuy xam ne c'est une erreur après ñu nekkaat. jaru mm. fii cere ji saf na laal procureur <laughs> loolu bokk na si li euh, li yokk déjà kii bi engorgement prison parce que mm. dafa nekk ay peine yoo xam ne nii maanaam euh, waxuma jaru ko sax mais jaru ko maanaam am na alternative Sénégal bu ñu jëlee code bi am na 19 peines alternatives. yoo xam ne nii mun nañ ko teg comme daan te nit ku du dem prison. travaux d'intérêt hmm. général ci la bokk. lu ci bari comme bracelet électronique bi xew fan yi wala am na am na yeneen xale yi sax fii nii par exemple am xale warul am dem prison. Hmm. bu fekkee def nañ situation yi dañ ko war a confier euh, parents wala structure yu nga xam ne nii am na fi. mais li. déjà am nañ prison ñun pour ah, enfants ci yeneen région yi am na ay secteurs pour enfants mm-hmm. alors que li gën a li gën a li gën mooy euh, confier leen ay structures spécialisées mais structures yooyu est-ce que am nañ ko am na am na am na ay AMO par exemple am na AMO euh, même ministère de la justice am na benn euh, centre d'éducation surveillée mm-hmm. boo xam ne ni ñoom leen seen liggéey mooy fexe ba xale bi daal du du du nekk ci lien de détention parce que prison aussi leneen la beneen mbir la hmm. ku fa dugg ba génn da nga xam ne beneen donc construction il faut ñu construire prison il faut ñu wàññi ni ñuy tëjee hmm. il faut aussi société bi wa changer visage bi mu gisee prisonnier yeneen priorité mooy affaire grossesse mariage précoce hmm. euh, yooyu aussi situation yu métti la surtout pour xale yi euh, surtout que euh, ñi nga xam ne nii généralement dañ leen marié duñ seen développement corporel du àgg foo xam ne nii euh, pare nañ pour jur. genre àggaguñ sa âge de la puberté. Hmm. de la puberté. bu ko defee bu ñuy bu ñuy am doom dafay dafay. day métti dafay métti hmm. ak feebar yu bari yoo xam ne nii mun na si mun na si aju. Hmm. bokk rek déperdition scolaire yi. parce que fii aussi euh, xale bu jigéen bu ëmbee dañ koy dàq. xale bu góor am man tam loolu waaw kay yaa ngi may sottelaan nag ma bëggoon a xam saa boobu ku ko wote kan la anam nga moom qui qui a en fait qui s'est dit à un moment donné qui a eu cette idée pour teg ko si table bi ne lii war nañ ko mun a def deux personnes ñoo seeq góor ak jigéen parfois peut-être sañu bokk benn classe bi ngeen jël jigéen gi dàq garde ko góor gi waaye c'est injuste waaw c'est injuste c'est injuste ils ont essayé de corriger mais si si liñ ko correct liñ indi liñ indi du solution. ban solution lañ indi. dañ ne bu bu bu bu xale bi amee doom mun naa ñëwaat mais ku dem doo ñëwaat. Mm. en fait ku perte une année. après yow leneen yaa ngi si leneen yaa ngi si yeneen situation. surtout bu fekkee déjà am nga beneen. am nga un enfant à charge. quest bi pourquoi en fait dañ koy dàq parce que parce que quoi. lan mais mais répression ñun dañ tàmm répression. cest à ñun suñu solu bu ndir mbir xewee li ñuy njëkk xalaat mooy réprimer maanaam punir. Mm. au lieu d'essayer de comprendre et de trouver une sanction négative boo xool domaine yëpp nag domaine yëpp suñu suñu législation pénale moom moo répressif parce que mu ngi jógee ci code criminel français. Mm. waaw et surtout ñu ñu biñ koy tëgg ñu ci pays yu bëri fi ñu ko tëggee. ñooñu dañ leen jàppee woon kay indigènes maanaam amuñ droit yoo xam ne nii war nañu am yenn yi wala yenn yi wala yenn. donc dañu jël loi yi en fonction de la classe sociale. lu ci bari. bañ koy tëgg noonu noonu lañ ko tëggee woon. xam nga France bi ñuy colonisé ñoom population indigène lañu jàppee woon ay ay population indigène lañu jàppee donc ñu ne ñii lii moo baax si yéen te loi yooyu yu ci bari. am na ba tey. est-ce que yéen a ngi def ay démarches pour genre loi yooyu pour changer pour que les lois soient adaptées si suñu ay réalités. exactement si li ñuy dund clairement. mais si si si si loolu lañ si loolu lañ dëkk parce que ñun aussi euh, nekkul rek dóor si pas door sax mais <laughs> nekkul rek wane wane li nga xam ne nii doxul mais on essaie aussi de de soutenir. Mm-hmm. mais sans aussi déresponsabiliser état mm-hmm. parce que. Euh, gis nga ñun ñun ñëpp on fait deux ou trois dañuy dañuy fay ay taxes ak impôt yoo xam ne ni mënuñ cee daw comme ni waa ji doon waxee <laughs> impôt taxe euh, pour benn mission de service public maanaam pour ñi ngi koy jox ñu fexe ba xaalis bi delluwaat si ñun maanaam suñuy bëgg-bëgg suñu ñun delluwaat si ñun pas dellu si feneen ensuite ñu ci bëri <clears throat> suñuy liberté dañ ñu koo xañ pour globalement ñu mun àgg fenn fii yaa ngi dégg. am na xam ne comme ñu état bi ok état am na ay privilèges yu bëri yoo xam ne nii ñu ñoo leen ko jox parce que dañ jàpp ni euh, ay mission de service public mission de intérêt général lañ nekkee. Mm-hmm. donc loolu aussi dafay baax toujours ñu leen koy fàttali suñu leen ko fàttalewul ñoom ñu nekk si leneen. Mm-hmm. mais organisation ne si am na yoo xam ne nii mun nañ ko jël par exemple on fait beaucoup de heure bu ñu defee rapport. dafay am ay recommandation mhm. te recommandations yi lu ci bëri ay changement de loi la. parce que loi bu changé moom moo ëpp impact dans le dans l' avenir. Mhm. Euh, que nga régler benn cas mais boo changé loi bi par exemple tey jii nii euh, loolu noonu bu ñu noonu xale bu jigéen bi euh, bu ëmbee au ñu koy daax mais nañ ko accompagner euh, peut-être ay cours walla système boo xam ne mun na ko accompagner ba mu mun def mun terminer. scolarité mën na permettre ñu conscientiser yeneen xale yi. permettre de conscientiser yeneen xale yi mais ñun par exemple euh, comme mënaguñ changer loi bi on essaie de faire la euh, sensibilisation di surtout former xale yi pour ñoom ñu sensibiliser seeni père di organiser ay activités ci école yi pour attirer attention si impact yi parce que am na dafay am impact sur nit ki ci boppam xale bi mais dafay am impact sur tout l'environnement parce que ñu ci bëri benn bu fekkee xale bi moom la ñu yaakaar xale bi mun te jigéen ñi dañ mun jàng macha allah. Mm-hmm. Euh, bu ñu noonu. <laughs> ñu ñu baare leen. Ah, dafay dafay am impact social. Mm-hmm. si nit ki si xale bi si sa sa famille yaakaar bi parents yi amoon donc loolu yëpp te sensibilisation moo gën a yomb loolu. mais est-ce que di am gain cause si loi yi nga xamante ne wala yenn euh, décision yi nga xam ne. Euh, état daf koy jël wala loi yu ñu voté yéen ngeen fexe ba loi boobu changé wala mu am benn évolution waaw xam nga am na benn affaire boo xam ne ni war nañ ko la gis nga li ñuy wax ci population yi euh, yu ci bëri aussi état yi yu regard boobu lañu am ci ONG yi mm-hmm. ni dañ bëri xaalis <laughs> croix am na xaalis. <laughs> war nañ jox enfant soleil xaalis. <laughs> am nañ ci ñu am na macha ah. di jox enfant soleil xaalis. dafa dëgg donc buñ gisee ne euh, organisation bi nii ñoom dañuy critiquer rek. mais surtout amnistie. buñ bëggee ni benn réforme. waaw mun nañ mun nañ ko bloquer alors que du pour ñun généralement. Mm-hmm. ñi nga xam ne nii ñoom la ñuy demander réforme bi. Mm-hmm. Euh, c'est population yi par exemple. Euh, daaw daaw daaw euh, daawaati jéeg trois années yëpp. Mm. ñu ngi bëgg a def benn euh, recherche sur la prise sur les prisons. Mm-hmm. parce que suñ constat wane ne wane na ne. Mm-hmm. prison ña fa nekk ñu ci bari. Mm-hmm. atteeguñ leen. wala ñu ci bari ñoo xam ne nii ay peine yoo xam ne nii maanaam jaru ko. am nañ ñoo xam ne nii liñ leen waroon daan li ci loi bi prévoir. tëdd nañ ko yombu na yàgg na. wala longue détention préventive te sax àtte wuñ leen. Mhm. Hmm. te sax àtte wuñ leen. mais est-ce du jàpp excusez-moi que euh, vous vous opposez maanaam comme yéen li ngeen di xeex par exemple vous êtes pas en désaccord sax mais da ngeen di que manquement am na fii problème am na fii mais est-ce que état du jàpp ni ñi taxawaayu opposant la ñu taxawee ba bu war ñoo faqastal et cetera. waaw ay hmm. ay fàttali la rek. ay ay fàttali la gis nga kii kii recevoir affaire bi. mooy jàpp na yenn saa yi euh, ñun opposant lañ taxawee. waaw mais. maa ngi comprendre dañuy dañuy dañuy fàttali rek état bi aussi. xam nañ de. da ngeen nëtul quoi xam nañ de. <laughs> ba pare xaaral balaa ka ba fa saa di da ngeen nëtul dama siy profité pour wax aussi beneen euh, vision bi nga xam ne ñu bëri am nañ ko si amnesty je vais être très cru dañ lay ni que amnesty moom de toute façon lobby gay yi ñoo leen di financé moo tax chaque jour boo leen gisee li ñuy wax yëpp c'est pour permettre ñu. Euh, pas officialiser mais permettre homosexuels yi évoluer comme ni ñu ko bëggee Sénégal ñu bëri si seen bopp am na si loolu leen fi indi wala genre yeneen lobby ñoo leen di financer pour ñu dugal Sénégalais yi si yenn domaines yi tey boo waxee jigéen yi nga xamante ne dañu nekk enceinte pour ñu mun leen défendre bañ leen dàq à l'école dañ ne am n si day ñëw pour yàq suñu doom yi. exactement mm-hmm. donc dafa am benn vision bi nga xamante ne nit yi am nañ ko si si si si si am na si wala yenn ONG yi. bëggoon naa ñu xool nu ñuy mën a def pour déconstruire ko pour ñu xam ni que amnistie. Mm. daf fi ne carrément pour simplement respect des droits de l'homme mais xam nga loolu mun nañ ko comprendre mu simple. Mm. bu njëkk bi li ñu war a jàpp mooy heure bu amnistie waxee. Mm. ak forme bu mu waxee. dafay rappeler gouvernement bi engagement bi ñu jëloon. maanaam duñ jékki-jékki rek wax. dañ naan état. yow yaa waroon def lii defoo ko yaa waxoon da def lii defoo ko mm-hmm. wala ni nga ko defee nii baaxul loolu mooy bu njëkk bi mm-hmm. état bi moom mooy jël euh, moom mooy signé convention mm-hmm. maanaam volontairement kenn du ko forcé moom mooy signé volontairement bu signé au niveau international dañ koy indi assemblée national ñu voté loi de ratification parce que gouvernement moom mooy négocier au niveau international mais bu ñëwee dafa naan assemblée député yi man lii laa négocier jàpp naa ne baax na ci Sénégal ànd ngeen si wala àndu leen si ñoom ñu voté voté mu nekk loi mm-hmm. mais bu fekkee dañu signé voté mu nekk loi application rek si des mm-hmm. ñun bu fekkee nee nañ euh, état bi li ngeen jëloon engagement assemblée voté ko appliqué wuñ ko mm-hmm. ñu ne ñun ñooy yàq xale yi yéen wax waxeet ngeen yaa bëgg luwaa yoo xam ne appliqué wuñ ko ba tey est-ce que yéen a ngi yéen a ngi surveiller loolu luwaa yi nga xam ne dañ koy voté te duñ ko appliqué ah. parce que à chaque fois ñu def émission fii da gis ni y a beaucoup de lois comme li ñu remarqué woon que dañ koy jël ci problème yu bari voté ko te duñ ko appliqué est que yéen ngi topp loolu aussi topp loi yi hmm. si lañ nekk tous les jours hmm. heure bu am na si waxee rek parce que Sénégal gouvernement bi am na lu mu waroon def defu ko. Mhm. wala am na engagement bu mu jëloon. te defu ko te respecté ko. Mhm. Mhm. mais c' aussi simple que ça. xool leen heure bu am na si génnee rek daf naan état bi li ngeen war a def defu leen ko wala li ngeen def nii wuute na. ak la ngeen engagement yi ngeen jëloon. ak li ngeen signé ak li ngeen ratifié. ñun signé wuñ ratifié wuñ voté wuñ assemblée. parce que amuñ pouvoir boobu. mais yéen pouvoir xam am. fàttali. xool ne leen waxoon ngeen lii def leen ko. kese loolu nag wax dëgg yàlla dara nekkul ci nañ leen bàyyi tranquille bëggoon naa xam aussi euh, euh, ba xam yéen parfois comme ONG yi euh, bët bu ñu leen di xoolee wala ñaaw njort bu ñuy am si ñoom que lii moo leen indilee est-ce que yéen loolu victime ngeen si wala yéen les gens acceptent clairement votre mission bi nga xamante ne mooy mener à bien enfants yi nga xam ne ñu ngi dund ak autisme ak yeneen i feebar yi. ah ñun de bii ñun macha allah ñun amuñu problème yooyu. Mm-hmm. parce que ma je dirais que ñun suñu association c'est une aubaine même pour la population. Mm-hmm. particulièrement ciblée. Mm-hmm. parce que aujourd'hui boo xoolee ñun ñi nga xamante ne ñooy waajur parce que dama il faut ñu préciser que ñun suñu association ñi ci nekk ñëpp ay waajuru doom yu am trisomique lañu. et autisme ak IMC man mii di wax ak yow ci laa bokk. donc ñun aujourd'hui dañu fexe ba. Euh, suñu naataangoo waajur yi nga xamante ne dañu amoon problème dans la société parce que dafa nekk ay handicap yu nga xamante ne bu la ko yàlla tegee. Mhm. man damay wax naan épreuve la lu bu suñu borom def mission la. Mhm. moi j'ai l'habitude de diir que nous nous sommes des élus. Mhm. parce que nos enfants la bénédiction d'Allah subhanahu wa taala lañu. mais du ñëpp ñoo ko jàppee noonu. parce que bu la ko yàlla dénkee dafa am problème buy posé mooy problème mu acceptation d'abord. ci ñenn ñi. am nañu yàlla baaxee. bu ñu juddoo rek macha allah nga nangu taf leen sa xol. Mm-hmm. mais am na ñoo xam ne fekku leen si. Mm-hmm. ñooñu dañuy jànkoonteel ay problèmes psychiques yi nga xamante ni durant toute leur vie dañuy daw le regard de l'autre la stigmatisation mise à dans les familles xam nga rek tradition sénégalaise yenn yi yow yaa ma gën a xam ni nekk ci biir kër yi. donc mi ngi noonu donc ñu mel noonu tey ñu mel noonu tey mm-hmm. association bi daf leen a bëggal daf leen féexal daf leen a dellu si waat ba tax ne aujourd'hui ñun mënuñu am problème yu mel noonu au contraire saay fu ñu dem rek nit ñi dañuy ubbi seen bopp bëgg xool nu ñuy fexee ba association bi jëm kanam ndax am na ñu nga xam ne ñu ñu gën a jàppale ci ñu ngi koy dund mm-hmm. que am na ñu nga xam ne tey association bi tax ñu renaître mm-hmm. ndax boo xoolee ñun dañu am groupe bu nga xam ne groupe WhatsApp maintenant on fait un plus de presque presque 400 membres waaw association bi aujourd'hui boo xoolee dañu femmes yi dañuy def ay échanges suñu biir mu am benn travail psychique bi nga xam ne ñu ngi koy leen koy jàppale mm. ki daan làqatu dafay génne xale yi daawuñu leen génne. Mm-hmm. dañ leen daan làq ci biir kër yi. Mm-hmm. grâce à enfant soleil way juri tey dañuy doxantoo seen doom yi. dañuy dem ak ñoom restaurant yi xale yi di dund yëpp dañuy ànd ak ñoom seen njaboot yi dem plage fu nekk. exactement loolu dafa neex. donc aujourd'hui dañuy def fexe ba li ko waral mooy tey dañu organiser wu ba nga xam ne chaque semaine dañoom ay forum ñu organiser suñu groupe WhatsApp. Mm-hmm. on a beaucoup de spécialistes parce que parents yi dañ daan am doom yi xamuñu ne xale bi dafa soxla kinésithérapie xamuñu ne xale bi dafa soxla psychomotricien xamuñu xale bi dafa soxla orthophoniste xamuñu xale bi dafa soxla ergothérapique euh. donc ils ont des besoins spécifiques yi nga xamante ne c'est pas donné hôpitaux yi da nga fay dem sax doo ko gis donc vous vous spécialistes yooyu tey bëriwuñu da ngeen former ñoo ñëpp la capté ñu ñëw duñu jàppale nag ngeen mun di guider parents yi di guider parents yi tey chaque semaine par exemple dañuy invité un spécialiste. mu ñëw ci groupe bi. nga gis parent yëpp dañuy ñëw di poser seen question mën naa ne pratiquement c'est des service à domicile tey di nga gis parent bu nga xam ne mi ngi doon am problème ci doomam grâce à ce groupe là grâce à à à à ce spécialiste là mu trouver ay solution mm-hmm. nga ñëw man maa ngi dund lenn wax sama expérience keneen ñoo wax expérience nga gis ci sa bopp donc franchement enfant soleil dafa nekk lu nga xam ni dafa daf état daf ci war a jàpp ndax ñu ngi koy defal liggéey état la ñuy defal liggéey bi nag mm-hmm. ñu ngi koy def liggéey bi nga xam ne amul njëkk waaw mm-hmm. donc ñun amuñu problème. mais est-ce que ñu nuyu bu baax suñu <laughs> ak euh, notre premier ministre. beneen mission bi bu leen def xam naa yéen moom yéen a gën a sonn ci àdduna bi ndax li leen di dénk yëpp dafa bëri mais tout à l'heure ñi ngi waxtaan ni euh, longue détention euh, préventive te yaakaar naa ni pour ñu wax si amul kenn ku ci gën a euh, placé ku raw suñu invité bi nga xamante ne rejoindre nañu muy Malal tala ndax loolu moom daf ko def combat am ba nga xam ne bépp émission bu muy def fépp fu muy intervenir il en parle. Mm-hmm. et tey dañu ko invité en tant que association bi nga xamante ne mi ngi nekk di liggéey ak ONG yi euh, par rapport ak jeunesse su Guédiawaye bi en tout cas Malal euh, merci beaucoup d'être venu. baal ma dama fii ñëpp a biddanti wuyu ma sekk maa njëkk a biddanti ah, <laughs> ah, ñoo maase. ñoo maase a maase am benn problème. <laughs> donc tout à ngi waxtaanee longue détention préventive. Ah, euh, monsieur Seck bu Amnesty di wax conditions yi nga xamante ne euh, prisonniers yi ñu ngi koy dund fii Sénégal ci biir euh, kaso bi ak. le fait que ñuy jàpp ni war nañu tabax beneen prison bu bees moo bëggoon am ci sa intervention parce que tout le temps tu nous en parles et que man euh, su ma demee ba am euh, benn conscience bi par rapport ak euh, li prisonniers yi di dund bokk nga si. Mm-hmm. yes merci merci beaucoup ah déjà di kontaan ci li ma fi fekk sec parce que c'est un partenaire de notre organisation et depuis très longtemps. Mm-hmm. cest ta dire ñun ñu ngi tàmbale liggéey boobu en 2005 parce que ku ci nekk. jumtuwaay bi ngay bi nga yor rek moom ngay jéem a utiliser pour jéem a trouver ay solution donc nous on a essayé de passer par le rap pour en en un premier temps organiser un concert biir prison mais bi ñu fa ñëwee organiser concert bi concert bi <laughs> jeex ci la ñu rendre compte ni que effectivement la question des longues détentions c'est une question mm-hmm. ci lañ ci commencé liggéey mais je ne pense pas que forcément construire de nouvelles prisons dina régler le problème du désordre des longues détentions. Moustapha Mendy moom lu mu bëgg mooy ñu construire école à la place des prisons. oui c'est-à-dire ouvrir une école. Mm-hmm. ouvrir un centre d'accueil de formation. Mm. renforcer une association de quartier qui regroupe des jeunes qui les forment c'est quelque chose qui empêche la prison. Mm-hmm. loolu moom mooy une la meilleure manière de prévenir. les gens le disent quand on ouvre une école on éduque quand on. quand on ouvre un centre de formation on forme donc c'est important mhm. te dafa bëri ci ñi nga xamante ne ñi ñi composer la population carcérale boo defee la cartographie c'est des personnes qui noonu nous viennent pas des Almadies mhm. majoritairement ils ne nous pas de de de Fann Résidence ils nous viennent des quartiers précaires mhm. ils viennent des centres urbains boo demee Pikine Guédiawaye yëmbal nga dem Kaolack nga dem biir Thiès nga dem ci yenn dëkk yi foofu la taux bi gën a ëppee donc la population carcérale est majoritairement composée de personnes défavorisées mm-hmm. te li ëpp li leen fay yóbbu ils sont dans l'interdit ñenn ñi dañuy trafiquer drogue ñu jàpp leen pourquoi ils trafiquent de la drogue parce qu'ils n'ont pas d'argent mm-hmm. ils veulent subvenir à leurs besoins et aux besoins de leurs parents ils se disent écoute l'État ne me donne pas d'alternative moi j'essaie d'en trouver c'est pas pour justifier cela mais c'est pour dire la question de la formation et est euh, est primordial je est primordial donc loolu lu am solo mais dañu nekk une population de 17 millions ou de 18 millions d'habitants avec un total de 532 magistrats pour gérer une population carcérale euh, environnant nee nañu 13 000 selon les chiffres de l'administration pénitentiaire li ci ëpp sax y a des problèmes qu'on n'a pas réglés par exemple les chiffres que donne l'administration pénitentiaire ce ne sont pas les chiffres que donnent les prisonniers. te bokkul ak chiffres yi waa Amnesty. waaw parce ah, dugg ci prison donc on a voulu bi euh, bi arrestation Takarnassé euh, Rebeuss Fès on avait demandé à. mooy prisonnier politique yi. li ñuy bañ a li dégg. en fait am du doon sax prisonnier politique kese c'est-à-dire ñoom dañ doon jàpp rek dugal. manifestation dañu jàpp rek dugal. manifestation yi daal xam nga administration pénitentiaire mënul bañ prisonnier. bu ko ad bu bu bu la procureur jàppee wala juge jàpp la. ñu yónnee la ñoom dañuy jël rek. après ñoom ñooy xool nu ñuy. fu ñuy dugal paqueté. Euh, te nekk wax ñaaw si ay nit. paquetage dafa nekk tur bu ñaaw si si. parce que objet la ñuy ay jën. bi nag yooyu noonu mais euh, espère on espère que autorités yii nii euh, dinañ si taxaw parce que on était dans le dialogue wax affaire détention yi mhm. ni ñuy jàppee yomb na euh, ni ñuy tëjee baaxul ni ñuy préparer réinsertion bi aussi baaxul te comme ni nga ko waxee léegi ni ñuy prévenir aussi affaires yi amul mhm. presque amul benn presque système ñun suñu système dafa répressif loo def rek li ñu njëkk xalaat rek mooy jàpp te mhm. te amuñ sax fu ñu tëj donc c'est amoo foo dugal di dugal amoo sax foo dugal donc mhm. c'est vraiment système boo xam ne ni war nañ ko war nañ ko xoolaat mhm. mais yow longue détention préventive yi mos naa la dégg nga ciy jéem a benn solution pour que nit bu demee prison bañ a di fa yàgg yenn yàgg yi ndax parfois da ngay dégg kenn di leen ne def na fa 3 ans 4 ans mbaa cinq an ba léegi taxawagul. yes mais en fait c'est c'est très simple mooy nit ki def na dara ilay jàpp nañ ko mm-hmm. Pikine Géejawaay wala Baay Laay qu'est-ce qu'il a fait il a tué quelqu'un mm-hmm. leer na qu'il a tué am na ay témoins mm-hmm. atte lan ko mu jeex aussi simple mu am une date au lieu de le faire attendre beneen affaire bi ci topp mooy tant que yokkuñu la nombre de magistrats yokkuñu le nombre de greffiers yokk le personnel administra euh, admi euh, pénitentiaire. Mm-hmm. yokk également yokk di fay les frais de justice parce que quand on ne pas les frais de justice il n'est pas possible d'enquêter assez rapidement. Mm-hmm. et les frais de justice sont reçus assez tardivement par par par les juges yi nga xamante ne ñoom ñoo ko on n'a pas assez de cabinet d'instruction bu ñu fexee règle yoon Euh, dina dina yombal désengorger prison bi dina fexe procédure yi di gaaw parce que dañ joge ci ay cour d'assises mm-hmm. indi ko effectivement ci ay chambre criminelle mais ça ne règle pas tout de suite le problème il faut que ñuy am des politiques d'anticipation par exemple ñi Amnesty ils ont travaillé sur la torture mm-hmm. la torture a amené énormément d'innocents en prison mm-hmm. il y a un problème dans un quartier il s'agit de meurtre il s'agit de trafic de drogue il s'agit de tout de suite d'abord il n'y a pas d'assistance judiciaire le la personne bi nga xamante ne moom la te téye yóbbu nañ ko amul assistance judiciaire te pourtant. mais si amuñu ko avocat commis d'office. dinañ ko am mais ils ne sont pas assez disponibles. non ah, ils sont pas disponibles. et puis et sax en fait c'est pas accessible. dans mm. certains genres. Mm-hmm. et puis et la loi n'est pas connue c'est-à-dire aujourd'hui nous avons un problème pour connaître la loi et la mm. justice. Si mm. les populations ne connaissent pas leurs droits, si les populations ne sont pas sensibilisées sur ce qui sur leurs droits. Mm-hmm. par exemple bu la sa jëkkër dóoree. Mm-hmm. am nga droit dem porter plainte. Mm-hmm. bu baax. ah bu la sa jëkkër dóoree am nga droit dem porter plainte mais une femme qui ne sait pas ça. ou bien en fait qui a peur d'être stéréotypée par la société. jëkkëram lay yóbbu police et cetera sans pour autant considérer le mal. que son mari lui a fait, mm. finalement, on ne connaît pas la loi. Exactement. Et si on ne connaît pas la loi, c'est une entrave aussi à cela. Mm-hmm. ñaata booy la ñu jàpp dóor leen dóor leen dóor leen am na fu ñu doon ak j'ai appris ci yenn témoignage yenn détenu ñu ne buum yi bu ñu la laajee. Mm-hmm. il les appelle les buum buum yi bu ñu la laajee tontu woo dañ lay wékk wékk mooy c'est comme comme xaru dibiteri yi. Mm-hmm. ñu wékk la. torturer takk say tànk si kaw oui dañ lay wekk torturer la pour que tu avoues finalement tu dis di nga wax loo xamante ne du dëgg exactement pour te débarrasser des tortures et mmh. finalement on dit comme que avoué na on le met dans le procès verbal il n'a pas d'assistant judiciaire mmh. qui est là te pourtant ratifié nañu loi bi on a ratifié la loi mooy li mu lay wax on ratifie des lois l'intérêt de ratifier des lois c'est vrai euh, baax na dans le principe mais li ëpp li ciy dugal suñu état yi parce que loi bu ñu ratifié ànd na ak ay moyens économiques. Mhm. et finalement même quand tu vas dans la gouvernance de ces fonds la doo ci gis tu y a pas un budget assez suffisant par rapport à la réinsertion y a pas de politique également d'anticipation de la réinsertion parce que la réinsertion on l'anticipe par la prévention ou on l'anticipe en milieu carcéral. Hmm. maanaam est-ce que Black Fatwa lu mu oh. doon wax. formation yi mën a am mooy mooy. Hmm. mais mais aussi il faut adapter les formations aux besoins. exactement doo ñëw ne way prisonniers yi kaay leen jàng boulangerie fekk plomberie moo leen intéressé. Hmm. doo ñëw ne prisonniers yi way ñëw leen nekk mécanicien fekk en fait rap moo leen intéressé. exactement il faut aussi tenir compte des nouveaux outils qui existent. nous pourquoi on s'intéresse à la culture hip-hop parce que c'est une culture qui est très proche du monde carcéral. Mm. Mm. Donc euh, le monde carcéral inspire les artistes du mouvement hip-hop. Mmh. Donc daf ci bokk moo tax à chaque fois on se dit que les solutions on pourrait elles pourraient être hip-hop. moom moo tax ñun suñu liggéey dafa transversal li muy wax tout de suite sur euh, euh, nu mu tudd ci. ñoom enfant soleil ñi muy gérer enfant soleil mm-hmm. les autistes par exemple. la première question elle n'est pas à régler dans elle n'est pas à régler par la médecine. Mm. elle est à régler par la famille. par la famille dans la maison. elle est décédée yàlla na ko yàlla yërëm mm. tàggoo. une sœur boo xamante ne ñoo bokk papa elle était elle est à la maison mais on l'a considérée comme tout le monde. Mm. mm. elle n'a jamais senti. da doon rafas tere xale yi. par exemple xale bu war a def dara mu xam ni moom moo la mag parce que dañ ko koy xamal ñu xamal ko ni yaa mag diw yaa mag diw am nga droit bi si moom et ça ça lui plaisait mm. donc nos parent ak non il faut que il faut que parce que il faut qu'on revoie aussi notre sociologie mmh. même la la manière de construire nos maisons parce que léegi dañu am ay appartement yoo xamante ne après en fait tu te dis autiste jekkul ci kër gi dangay ngay am autiste di ko nëbb di ko nëbb. di ko teg tëj exactement oui di tëj mooy c' est un enfant en fait c' est un enfant maudit. wala bu gan ñëwee ñu nëbb la et cetera ama doomu jinne la wala doomu nangam la et cetera loolu. moo tax même il faut revenir il faut que ñu reconceptualiser affaire yi le fait de les appeler enfants soleil c' est aussi les stigmatiser. Mm-hmm. sans pour autant même mu fekkee na ngeen bëgg a defar. même bu fekkee na ngeen bëgg a defar c' est une manière. mais vous ne l'avez pas fait de manière defu leen ko expressément donc pour man en fait benn genre discrimination positive lay nekk pour man on ne doit on ne doit pas les distinguer de nous mhm. bien que am nañ ay ay am na am na lu ñu distinguer ñoom am na benn école bu nekk Wokam am waaw excellent am na benn école bu nekk Wokam qui fait un travail excellent école boobu il il s'associe des artistes mhm. quand tu associes des artistes dans ce que tu parce que moo tax musique transversale donc j'ai une fois fait une prestation à l'hôpital Fann d'abord hôpital psychiatrique de Fann j'ai aussi fait une prestation à Ouakam où en fait avec la musique tu sentais que ils se retrouvaient bien sûr ils aiment danser ils sont contents ils aiment bien vivre donc en fait il faut que suñu société yi mhm. revoir même li ñu indi ci kaso mhm. kaso lan moo ñu ci indi yi kaso mhm. Afrique mosul am kaso tubaab bi moo inventé kaso moo tax assises yi amoon solo mm. surtout la question de l'imaginaire mm. comment nous nous percevons mm. notre justice comment nous comment nos être parce que am na dëkk yoo xamante ne prison amatu fa prison amatu fa parce que les politiques liggéey nañu ci politique de redistribution équitable des ressources d'abord mm-hmm. boo ko defee tu règles une première question boo régler la question de l'éducation mu équitable un peu partout condition yi ñuy jàngee Kolda ñu koy jàngee Dakar finalement tu règles un certain nombre de problèmes pour man il il y a énormément de choses sur lesquelles on peut s'appuyer. c'est que ñun Malal on a tellement de choses à régler c'est-à-dire que depuis qu'on a commencé l'émission on touche plusieurs domaines mais domaine boo dugg c'est comme si en fait le chantier était là et qu'il y avait mm. tout à faire et que euh, dinañ wax dinañ teg ay lois dinañ réfléchir on fait des assises et tout et euh, ce qu'on remarque c'est que à la fin de la journée il y a beaucoup de textes écrits il y a beaucoup de lois votées il y a beaucoup de décisions prises mais l'application pose problème et maintenant c'est ce qu'on demande à nous notre nouveau gouvernement c'est vrai que mënuñu def lépp ñoom kese population bi daf si war a jàpp tamit gëm ne ñun war nañu am benn changement bu nga xamante ni si bopp beeg si suñu manière d'être suñu manière de nous comporter de voir les autres euh, la ñu ko war a commencer mais vraiment je pense qu'il est temps que bu fekkente ne ñun fi ñu bëgg a àgg ñu àgg fa il faut qu'on agisse il faut que ñu appliquer lépp lu ñuy voté te ku nekk ngay xool sa bopp daal li nga bugg ñu def la ko bul ko def keneen je pense que il faut qu'on se base là pour mun a évoluer vas-y balaa ñuy ñëw si bi yi nga xam ne ONG yi ñu ngi koy am dans l'application de leur mission voilà merci bi jour man dafa am lu ma bëgg a ñëw ma dafa am benn wax bu am solo bu ma wax mm-hmm. léegi mm-hmm. mu ne solution bi ci kër yi la tàmbalee ci problème yi xamante ni ñu ngi koy dund mu nekk des problèmes sociaux particulièrement ñun ce qui nous concerne pour euh, nos enfants enfants soleil bon balaa may yegg si foofu mooy enfant soleil bi boo xoolee c'est vrai que c'est une discrimination positive on peut l'appeler comme ça entre guillemets mais au fait soleil ça symbolise la joie la lumière la clarté au contraire ñun dañ leen di wooy enfant soleil pour sublimer leen en quelque sorte parce que dañ leen di woy en général c'est des enfants spéciaux à intelligence spéciale parce que ay xale yu yu yàlla baaxee lañu. ci lu bëri yoo xam dañu sax xaw a raw seen ay morom yi nga xam ne ils sont dits entre guillemets normaux voilà donc mu bëggoon ñëw rek euh, malal ci lii nga wax ni ci biir kër yi. mais xam nga Bijou dafa am benn problème bu extraordinaire avec ces enfants là. Mm. moi je me dis que ne est mën na ci dara. Mm. est ce que société est ce que état mën na ci dara parce que question de mentalité. Mm. mu nekk lu doy waar lu nga xamante ni ñun way juri dañ koy dund. Mm-hmm. ci suñu doom yi gis nga li albinos yi di dund. Mm-hmm. ci affaire mysticisme et cetera. Mm-hmm. mais suñu doom yi boo xoolee ñu bëri te ñu leen génne loolu daf si bokk. est ce que xam nga ñun suñu doom yi dañuy dagg seen eh. la boobu. huit jours c'est extraordinaire ñun ku nekk da nga koy dund noppi da ngay ñëw rek gis sa karaw doom ñu da nga naan quoi lii nu mu demee et cetera bés nañu toog rek ci suñu benn groupe bi ñu waxtaan rek ku nekk wax dund naa ko dund naa ko dund naa ko. mais pourquoi faire en fait c'est quoi l'objectif affaire bu doy waar moo tax tey jii waajur yu bëri tey waajur yu bëri tey dañu ragal seen doom yi bu ñu leen bëgg leen sax ñuy dem ci biir ay fu nit ñu bari maa ngi soog di fàttaliku ndeysaan bu may soog di accoucher am na sama benn mbokk mu ne ma bul di ànd ak moom fu bëri nit tey laay soog di comprendre lu tax mu wax loolu. lu extraordinaire bi am ku ma ne des fois dañ leen koy digal ci seen ay sëriñ. Hmm. le charlatanisme. Hmm. ça poursuit nos enfants. nos enfants ne sont pas en sécurité donc loolu tey ji mu war a ndëpp ndëpp national bu ñu def ci xel yi. loolu lan moo ko mën a régler bijou. Mm-hmm. Oh, gisuma ko. parce que nit ki li mu gëm na ko ba pare li mu gëm xale yaa koy bëgg li ko libéré mu mel ni comme ñeneen ñi mais moom risque bi koy topp topp li beneen xale. affaire bu doy waar. il n'est pas en sécurité. c'est-à-dire parfois man damay dégg ay affaire ça me choque tellement que je sais pas ndax yenn croyance yi moom c'est mais euh, mën nañ ci dara en fait on en parle on a fait toute une sémi toute une émission sur euh, lépp luy handicap mun ngeen fa dugg YouTube ngeen xool ko ak lépp li nga xamante ne ñi ngi koy dund ak solution yi ñu leen mun a apporter lépp on en a parlé ici dans Miroir du Sénégal donc mun ngeen dugg YouTube ngeen recherché ko wala SSP bu TFM mu ngeen dugg xool ko euh, bëggoon naa ñu revenir at un petit peu ci sujet bi nga xam ne moo ñu andi muy ONG yi aujourd'hui euh, ci seen ay mission yéen waa Croix-Rouge lay commencé ndax yéen a ngi si zone de guerre zone yi am crise zone bu am famine yan risque ngeen di encourir bu ngeen di doxal seen mission. njëkk rek mooy manque de communication bi nga xam ne dafa am population bi comme ni ko sama jigéen di waxee léegi-léegi mais du ñu bàyyi ne lu mu métti métti métti on doit informer pour un changement de comportement communautaire nit ñi des fois dañuy jël ay décision di xalaatee foo xam ne ñoom xamuñ ni lii moo nekk amuñu information bi en fait parce que sa am na am na centre bu nekk Grand Yoff bu nekk am bu tudd Aminata Mbaye mhm. daan liggéey ak ñoom ci côté boobu noonu donc ñun Croix-Rouge son transversal ñu ngi fépp mais boo xoolee volontaire bi nga xam ne bu solee dosaar nekk sur le terrain problème administratif lay njëkk am. Mm. par rapport ak mission bi nga xam ne kuréel ba mu bokk ñu war nañ ko ko jox. des fois ci biir dans les zones reculées amuñu yenn jumtukaay yoo xam ne mën nañ ko gaaw a jox ordre mission su ko defee bu ko defee da ngay dem ñu ne kañ ci mission. donc même bu demee tamit mu téye loxo mu ne jotaguma ordre de mission wala amaguma benn garantie sama supérieur mun nañ ko toppee non assistance à une personne en danger. Mm. loolu lay njëkk ci ci ci côté boobu noonu. Mm. donc des fois tam ci bërëb. sans pour avoir toutes les informations parce que après tamit dafa am lu ñu dal ci biir comme Covid bi corona bi passé ñu bëri si ñun am nañu Covid. loolu traumatisé na bi nag. mais bien sûr bien sûr dafa traumatisé ñu bëri balaa loolu sax traumatisme yàgg na man man man bi may soog a euh, nekk secouriste daanaka ñu may boole ci 2002 Basalo Diola. on a eu beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup ñoo xam ne si ñun dañoo amoon ay problèmes psychiques après. Mm-hmm. ñu yóbbu leen hôpital Fann bi nga xam ne man tey foofu laay liggéey te malade bi faaw dafay def communication yu am solo. Mm-hmm. donc ñu des fois c'est à nos risques et am na frontière xam ne. dans les zones de guerre ils reçoivent des balles perdues dañ koy woowee entre guillemets. Hmm. votre gilet ne vous protège pas. ça nous parce que gilet bi da lay identifier da lay protéger te c'est une fierté. mais des fois da gis li nga xam ne euh, ci convention yi nous sommes tellement protégé que dañuy wax ni dafa am ñoo xam ne dañuy mbubboo. suñu yére di ko sol wala jël suñuy jël ay oto def ko ambulance euh, di ci dugal ay nit ñoo xam ne ñoom dañuy guerre mm. on a eu récemment un volontaire qu'on a perdu au Mali mm-hmm. ci loo xam ne ci loolu après dañuy wax fa ñoo xam ne ci CICR lañ nekk di liggéey c'est les volontaires bénévoles du Croissant Rouge ñu am fa euh, euh, ñu ñàkk fa seen bakkan c'est vrai que chaque fois bu ñu reyee ku xam ne Croix Rouge la bokk wala casque bleu yi c'est dafay jur toole bu rëy dañuy nekk ils ont tué nit yoo xam ne ci biir croix rouge lañu nekk wala Kassim lay rainbow mais dafa am ñoo xam ne ñoom seen yoon nekkul si gilet bu bu bu bu rouge rek ci casque bu bleu en fait ñooñu wu wuñu euh, droit de l'homme wu ñu aussi li nga xamante ne moom mooy protéger convention yi protéger ONG bu ñëw neutre rien que pour dimbale doomu aadama peu importe quand bu mu bokk tout à fait même sax loolu moo gën a ngande mais même si nawetaan yi nii dañ ne fépp fu am plus de cinquante personnes dafa am benn secours bu fa nekk mhm. da ngay jékki-jékki nit am malaise daanu mhm. Sénégalais bëgg na dimbali mais xamul nu ñuy dimbale nan ngay def pour dimbali nit ki nga xam ne dafa am arrêt cardio respiratoire nit ki am na maladie bu ndaw xamoo ko jàngoo ko donc ñun ci su da ñëw ci nawetaan sax mooy milieu défavorisé yi ñu foog ne ñun dañoo am fu ñu far ñu lay sànni ay xeer mm. en cas dafa ko waxee sànq waxu ko mais c'est du charlatan euh, loolu mm-hmm. des fois gis nit euh, benn maa mën moo lay yabal ne la dama jëli tel objet nga def ko nii nii nii di nga ci am lii lii lii mm-hmm. parce que on a des valeurs sociétales yoo xam ne euh, baaxul ci benn côté ay préjugés la ñuy am ci lu bëri ci côté société bi dafa ñoo xam ne dañ leen mettre à rate de la société. Mm-hmm. je je vous dis euh, am ngeen liggéey bu bëri surtout au côté du mm-hmm. sud au Sénégal. Mm-hmm. Euh, côté Casamance. région de Ziguinchor Kolda ak Sédhiou li ko wër. c'est très ngeen fekk fa ñu ñuy woowee ñi nga xam ne dañoo am tolosonomie 21 ans. parce que ñoom si seen mentalité. seen mentalité dañuy am lu leen waxoon ci loo xam ne ñii lii moo leen andi. te ñu ngi fay ubbi antenne de te tubaab yi <laughs> euh, médecine moderne wane na ni lii Euh, chromosome voilà chromosome 21 bi moom moo am modification rek te boo xoolee boo demee ci tubaab yi japonais yi xeet bu ne am na ci bu mel noonu donc déjà foog ñu sensibiliser nit ñi ci côté boobu noonu mais pour tamit suñu problème actuel mhm. yeneen ñuy wax sànq ba tey dañoo bëri xaalis dañuy yeneen ñuy wax sànq ba tey dañoo bëri xaalis macha allah loolu moom gelaat mais quoi am nañu xaalis bu ñuy fonctionner c'est vrai Croix Rouge am na ay travailleurs yu ñuy fay macha allah am nañu contractuel CDD CDI mais jamono ji euh, comme toute association dañoo un problème administratif bu doy waar mais xam naa ba ñu ci jógee moom foog ñu réformer parce que on a une ex boo xam ne dafa liggéey quoi bu retraité dix ans après ndeysaan ñu jël si ko foogoon ne nag am na expérience bu yaatu boo xam ne ak carnet d' adresse am dinañu mën a suqale mais dafa gën a diigal suñu kër gi. Mhm. figurez-vous jamono ji may wax ak yow nii les travailleurs de la Croix-Rouge sénégalaise les toog nañu huit mois amu salaire. avant tabaski sax waxatuma ko. vous avez des problèmes financiers. mais beaucoup de problèmes actuellement. Mm. beaucoup de problèmes boo ñu gisee sax dara am na ñu ngi sur le terrain mais on le fait avec beaucoup de difficultés parce que ñun suñu mission mooy taxawu doomu aadama foog ñu def ko. Mm. mais euh, man volontaire là je travaille à l'hôpital Fann mais am na ñoo xam ne waxtaan nañu sànq benn pàcc boo xam ne. fa la ñuy liggéey fa la ñuy liggéey ci administration l'ex-présidente madame Bafou Ba euh, dans sa malgestion financière administrative mu ngi koy dundaloo ay dignes pères yoo xam ne vivent des moments difficiles parce que gestion administrative Euh, nekkul da ngaa bëgg rek wala da ko war a ko mën parce que da foo leen doon jëlee xaalis waaw nee naa la sànq suñu financement yi dafa am ay origines diverses bi lu ñu subventionné attanul soxlawu Croix Rouge d'accord dafa yoo xam ne ñuy jox xaalis daf ñuy jàppale comme lu mel ni e, lu fédération mm-hmm. waaye ay personnes de bonne volonté ñu nekk fii Sénégal fii ci gox ko xaalis ñu dimbali ko jox ay dons mm-hmm. parce que ñun fu am assistance dañ fay nekk mm-hmm. donc ak aussi suñu activité génératrice de revenus yi ma la wax waaw dafa am yoo xam ay propriété euh, personnelle yu mu moom comme école primaire yu ñu am ak préscolaire rek yooyu mm-hmm. yooyu dafay tax ñu mën subvenir su suñu besoin état bi tam daf ñuy affecté ay fonctionnaires yoo xam ne dañuy liggéey si noonu mm-hmm. mais jamono ji on a un réel problème de gestion administrative financière ak humaine ñi <laughs> nga xam ne nag sa naataangoo jigéen moo nu ko teg voilà suñu naataango jigéen ban naataango jigéen mais faut même pas essayer d'aller écoute-moi non c'est pas parce que c'est une femme non non xaaral rek xaaral rek c'est pas parce que c'est une femme c'est juste parce que c'est une mauvaise gestionnaire c'est juste ça c'est pas une question de ça nga sànni xeer góor gi ah moo tax nga delloo ko xeer góor gi sànqwaar nga sànni xeer bu fi jege jigéen ñi ma mbëkk la ba tey ba tey ba tey ba parce que sànni xeer góor gi c'est très très glissant voilà ma doon benn kii rek mais lu jigéen bokkul baaxul waaw exactement baaxul mi ngi noonu suñu yaay la suñu maam la mais lenn rek mooy catam lenn rek dafa jëm mag waaw te xam nga boo nee ba jubóo. waaw waxtaan leen rek moom ñëw sax. si si sensibilisation bi uh-huh. donc dama bëggoon ñëw rek si sensibilisation bi quoi qu'on puisse dire vous êtes la Croix-Rouge donc nekk ngeen benn structure bu mag war ngeen am facilité pour am ay solution ci seen i problème peut-être ngeen régler seen problème d'administration bi ngeen wax financier bi ngeen wax mais en parlant de la population est-ce que yéen di ngeen di jël ay engagement pour fësal euh, sensibilisation bi taxaw ci parce que quoi qu'on puisse dire réponse à digitaliser c'est sensibilisation. waxtaan euh, voilà encore plus loin réseaux sociaux. <laughs> voilà euh, parce que. mais mais dencal ma loolu dencal ma loolu parce que j'aimerais non j'aimerais vraiment que euh, ONG yi puisse travailler ak influenceuses yu mel nii pour que votre message passe beaucoup plus. si biir génération bi mais may ma ma laaj fii risque nga dugg yan risque ngeen di rencontrer très brièvement si l' application de de votre mission et naka lañ mun a def pour aider leen ngeen mun ci génn généralement ñaari risque lay nekk mm. euh, y a un risque réputationnel waaw euh, yéen moom réputation euh, moom ak risque physique risque réputationnel lay sosal mm. maanaam ah, dañ lay dénigrer. Euh, parce que boo jëlee organisation comme Amnesty comme Enfant Soleil comme Croix-Rouge. Mm. c' est des organisations de membres. Mm. Euh, c' est yoo xam ne nii aussi si nit ñi lañ yaakaar pour pour dund. Mm. pour def li ñuy bëgg a def su fekkee. ñooñu teg nga seen der loo xam ne nii kenn buggu leen jege. Mm-hmm. kenn bëggu see bokk kenn bëggu see dugg. stigmatiser leen stigmatiser leen. Mm-hmm. loolu dafay impacter beaucoup seen liggéey. Mm-hmm. Euh, et donc c'est important aussi que ñu leen di may ay espace pour euh, pour ñu mun def expliquer au moins parce que am na ñoo xam ne nii dañoo xamul boo leen expliquer dinañ dinañ dinañ jàpp gouvernement yi nag moom euh, ñoom ils le font exprès ils le font exprès euh, dañuy fexe ba yow doo leen tal maanaam dañ lay dugal ci ay coow yoo xam ne nii maanaam doo leen tal. bay lijjanti lu ñu def. lu ñu def ak lu ñu def wala engagement yi. dañ leen ruube <laughs> te loolu c'est important organisation fii yu bari yoo xam ne nii tëj nañ tey. Mm. loolu moom moo taxoon parce que teg nañ seen der yi wala sosal nañ leen wala waxal nañ leen loo xam ne nii. Mm. Euh, gouvernement bi au lieu mu jël responsabilité tëj organisation attaqué leen frontalement. Mm. dañuy mobiliser militants yi wala yeneen organisation wala sax ñu wax partenaire yi ñu leen financé. parce que fii euh, léegi financement yu bëri organisation yi mënatuñ ci ci jëm. Mm-hmm. Euh, parce que ñiy financé fii mooy soit fondation yi wala ambassades yi wala yeneen organisation dañ la naan organisation bii nii boo ko financé yow doo fi liggéey. Mm-hmm. wala doo fi intervenir. wala dinaa dinaa dal sa kaw. Mm-hmm. bu ko defee ñooñu aussi ñoom pour continuer à exister. dañuy réfractaire dañuy réfractaire wala ñu jaareele ay euh, wut ay ay ay. satellite daal. Mhm. ba ñoom dootuñ ci feeñ. Mhm. la répression important bu fekkee def ni loolu yëpp doxul ñu nag attaqué euh, militants yi physiquement euh, y a eu beaucoup de fii nii Sénégal récemment ñu yàggul rek ci temps Macky Sall. Mhm. am na défenseur yoo xam ne dañ dawoon ñu loolu Sénégal. dañ dawoon dafa nekkoon dafa nekkoon benn terre d'asile défenseur des droits humains yi nekkoon à l'extérieur ñu ci bëri dañ doon daw ñëw Sénégal bu fekkee euh, seen pays dafa amul sécurité. dañ leen di menacer seen vie day nekk en danger bëgg leen tëj wala bëgg leen rey dañuy ah. daw ñëw Sénégal. Mm. ok li xew temps deux mille vingt et ba deux mille vingt trois deux mille vingt quatre c'était l'inverse Sénégal yu bëri dañoo daw pour ba ñu jàppale. Mm. juste parce que i étaient militants wala ñu ngi doon défendre ay causes wala ñu ngi doon taxaw euh, jàmmaarloo mm. gouvernement. Mm-hmm. Euh, donc su fekkee mënuñ ta mënuñ euh, yàq sa der ba yow sa liggéey taxaw euh, on les arrête jàpp leen tëj leen am na ñoo xam ne sax dañ leen rey. Mhm. buñ dawul et loolu lu ci bëri c'est pas le jeu en fait jeu bi comme ni ma leen waxee mooy am na si bu indee teg si table bi mhm. état bi am na possibilité ne am na si yéen li ngeen wax fii li baax ni li lii dëgg la lii du dëgg c'est c'est comme un article mm. quand un journaliste publie article au lieu nga naan diffamation la droit jàpp tëj mais defal droit de réponse parce que ñi nga xam ne nii ñoom am nañ xel bu ñu gisee déggee plusieurs versions dinañ xam lan moo ci jaadoo ak lan moo ci jaadoo mm-hmm. heure bu am na si waxee ne Sénégal def na lii wala am nañu responsabilité bii wala violé nañ tel droit mais ku ci nekk am nga possibilité xam ne ah ñii li wax dëgg la wala dëgg yenu na maanaa wala lu yenu maanaa les gens peuvent se tromper mun nañ tromper de bonne foi mun nañ aussi manipuler mais nañ teg lépp ci table bi rek parce que ñi ñuy servir mooy citoyens yi mm-hmm. citoyens yi lañ bëgg ñoom ñu xam mun comprendre mun participer aussi parce que su fekkee citoyens yi participer wul rek mu nekk diggante organisation yi ak état yi doole yemul. Mhm. doole yemul te mbir yu du du du du. du sotti yooyu ñoo pour pour les pour les aider. Mhm. Euh, il faut un cadre. Mhm. par exemple ñun depuis deux trois années ñu ngi euh, liggéey pour ñu am benn euh, un loi qui organise lactivité activité des des droits humains. et protéger leen bu ñu wax défenseur des droits humains nekkul rek ñi ñu xam. wala ñi ñi seen tudd ñi tudd képp koo xam ne ni dangay ngay défendre droit de rek mu nekk en tant que individu wala nga nekk si benn organisation benn cadre association war nañ la défendre parce que ñoom aussi euh, ñu ngi ko doon si début bi ñu ngi koy wax lu ci bëri bu ñu demee bay attaquer Croix-Rouge euh, c'est parce que dañoo xamul mm-hmm. mais bu ñu tegee cadre bi mun nañ ne enfants soleil lii la ñuy def croix rouge lii la ñuy def amnesty lii la ñuy def journalistes yi lii la ñuy def avocats yi lii la ñuy def défenseur de droits humains la ñuy def bu ñu ko defu rek dañ leen stigmatiser mm-hmm. wala ñu wax loo xam ne ni yow neexul wala arrangé wu la après nga dal seen kaw donc euh, état bi Bassirou yaa ngi doon wax léegi euh, Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko premier ministre président li ñu mun def mooy euh, société civile am nañ benn avant projet pare mm-hmm. boo xam ne ni nee lii mooy seen i besoin nii lañ leen di protéger. Mhm. pas defal leen impunité wala ñu nekk sans boo xam ne nii amul amul règle déedéet dañ leen bëgg a protéger pour ñoom li nga xam ne nii ñu ngi koy def ñu mun ko gën def. waa <laughs> donc mu may wax nga temps bi ñu joxoon jeex na. Mhm. malal pour tëj rek euh, naka ngay liggéey ak ONG yi ak euh, ban importance lañu am ci tey yow mission bi ngay doxal jëmale ko ci jeunes yi à travers le rap. yes déjà. Hmm, la un accompagnement technique, parce que l'accompagnement, ce n'est pas forcément un, accompagnement financier. Il y des informations sur les prisons. Mm -hmm. Amnesty, moi, mm -hmm. parce que am na possibilité d'accès yi mu am auprès des autorités sur certaines questions euh, ñun amuñu ko donc un accompagnement technique pour que boo jógee di addu ci espace public bi nga bañ a wax n'importe quoi. Il y aussi un accompagnement financier. boo xamante ne souvent yu mel ni ay Amnesty yu mel ni ay euh, Osiwa yu mel ni ay euh, Prince Claus ay yeneen ak yeneen euh, yooyu yëpp accompagnement technique la renforcement de capacité la mais également ay moyens la yoo xamante ne moo ñuy permettre ñu dérouler Euh, li ñu bëgg a dérouler sur le terrain. Mmh. Yeah. merci beaucoup en tout cas sur le plateau balaa ñuy jàll il faut question Black Fatwa bi dugg ndax euh, xale yi <laughs> moo tax ñuy wax ñun xale yee ñu ñor. de mhm. xale yi ñu ngi ci réseaux sociaux yi ñu ngi ñu ngi lay follow TikTok ñu ngi lay follow fu nekk. Euh, dugalal sa question par rapport ak ONG yi ak influenceuses yi réseaux sociaux oui exactement ko on a besoin que actuellement fu ñu tourner par exemple ñu xam lan mooy ONG lan lan mooy njëriñu défense défenseur au droit de l'homme lan la association bi di def et cetera parce que moi j'ai remarqué que Sénégalais dafa manqué information duñu communiquer c'est-à-dire état bi wala le gouvernement ne communique pas assez duñu jox assez d'informations assez de bon ils ne sont pas peut seen actes mais ñi nga xamante ne ay organisations solution lañ amal ñu njëriñ ba ñun bu ñu amee problème wala yuuxu rek yéen la ñuy njëkk a jot balaa ñuy gis état wala gouvernement bi donc yéen qu'est-ce que vous pour nit yi gën a xam yéen lan mooy seen njariñ ci côté euh, sensibilisation parce que qu'auparavant euh, Croix-Rouge daan dem ci école yi ba léegi mi ngi koy def comme man mi j'ai bénéficié de la formation dañu daan yóbbu plage taqal ñu nëb yi on était fiers de ça ba ku nekk da daan wax su ma màggee bëgg naa liggéey Croix-Rouge actuellement moom mënuñu def dara sans digitaliser liggéey bi association yëpp sax booy xool man tey su ma bëggee wër association bi damay dem direct sama xel automatiquement damay dem Instagram xool association bi lan lay def c'est quoi la traçabilité sur les réseaux et cetera mais est-ce que xalaat ngeen comme li ma doon wax moderniser les prisons former les les prisonniers et cetera donc xalaat li nga xam ne mooy information bi ak. Euh, seen image ngeen digitaliser ko wala liggéey bi ngeen di def donc voilà est-ce que vous réfléchissez côté boobu noonu oui oui c'est question parce que les TIC jamono ji les techniques de l'information de la communication kenn mënul dem euh, sans sans moom. Mm. te jamono ji yéen da ngeen ciy def tamit liggéey bu am solo gën a yaatal mooy li ma waxoon sànq rek dans notre plan d'action global dañuy wax. Euh, on doit tout le temps informer éduquer et euh, communiquer. Mm-hmm. communication comme dafa yaatu. au niveau de la CAO sénégalaise euh, am nañu cellule de communication boo xam ne Mfali Sadio moo ko jiite moo fa nekkoon am nañu aussi dans chaque département ñoo xam ne ñoom ñooy gérer aspect communicationnel boobu man département Dakar bi ma bokk am nañu page Facebook am nañu euh, ay informations yu ñu fay dugal dans toutes les activités qui concernent le département de Dakar. Mm-hmm. lépp nekk ginnaaw donc dañ koy dañ koy vulgariser mais néanmoins on doit tendre vers la perfection c'est vrai gën a occuper réseaux sociaux yi parce que réseaux sociaux dañoo bari te wuute mhm. donc loolu noonu war nañu présent ci euh, Facebook war nañu présent mais aussi y a des yoo xam ne par exemple boo tëyee sa téléphone rek il suffit que connexion bi tàkk. pour nga am benn 5 minutes xam ne tu de lire la pub. am da lay indil croix rouge indil la et cetera jàll da koy gis ci taxi yi yeneen kii yi. voilà quoi il faut voilà il faut jàpp leen si ñëpp jotee ci waa am na solo. comité local Sel Papo. da da def liggéey bu am solo. pour hmm. tàggoo Moustapha. aywaay tàggoo voilà. <laughs> bàyyi euh, euh, dañuy gërëm di sant di gërëm di sant di encourager volontaires yi jamono ji donte am nañu un problème organisationnel par rapport ak élection yu ñu jëm. parce que chaque année chaque quatre ans mooy leen koy waxoon dañuy organiser ay assemblée générale euh, élective yoo xam ne dañuy dañoo jamono ji dañoo xaw a bedd yenn département yi muy Dakar bi ma bokk Pikine Rufisque ak Kër Massar. bu donc ak euh, bu ñu a waxtaan suñu biir depuis neuf mois nous sommes bloqués sur ça. Mhm. donc euh, di ñaan yàlla ñu am ci heureuse parce que la présente l'ex-présidente elle est actuellement bloquée. Mhm. di encourager di ñaanal volontaires yëpp fu ñu mënti nekk Sénégal. Mhm. yàlla sàmm yàlla aar c'est pas facile du tout. tout ce qu'on fait on le avec le cœur. mais dañuy taxaw doomu aadama sans attendre rien en retour. lu dul ay volontaires lañ. te nëtt ñu def fa don nekk euh, muy bu rëbës aussi chaque année ñu def fa ay don donte euh, ñu ngi ko ñaanal tamit suñu frère bi fa nekk Birama yàlla daaw ko génnee mu dellu si ak ay activité mhm. di gërëm ñëpp di sant ñëpp di nuyu sama président président Astako bi nga xam ne moom mooy président département Dakar di ñaaxaat volontaire encore une fois bu ñu fàtte li ñu lié ak population mooy taxaw doomu aadama ah te bañ a jël yenn risques parce que nous sommes nous avons sauvé sans surcomber merci beaucoup euh, Moustapha Mendy moom moo nekkoon représentant Courage kontaan nañ ci li nga ñëw bokk ci biir euh, émission bi euh, vraiment merci merci beaucoup aussi madame Assietou Diaw Gueye secrétaire générale pour antenne de Dakar enfant euh, soleil monde. Mhm. kontaan nañ si nga ñëw waxtaan ak ñun ci association beeg li ñuy def. merci merci beaucoup Mala. jaajëf. merci. merci. à si beneen émission. incha allah. <laughs> jaajëf monsieur waaw euh, man Abdoulaye Seck El Hadj yi def promotion paris sportif. waaw nañ ko bàyyi. duñ ko bàyyi ne dañ leen di fay dama lay wax rek fii nit ñi dañoo dañoo bëgg a lekk tam duñ ko bàyyi non mën nañ ngaa liggéey liggéey boo xam ne doo si lor keneen mais jox leen beneen amnistie jël leen nga kii leen nga fay leen ñi def ñi def paris sportif rek jox ko xaalis du rek ñi def paris sportif yëpp nañ ñëw si amnistie ay man woo woon nañ ma kii laa amoon souci de ndax war naa mën a lekk xaalis fekk man sama julita sax eggul foofu waaye par fois rek xam nga rek remercier au passage clin d'œil à notre présidente nationale. Mhm. Adama Ndao mi nga xam ne moom a yabal fii. ak euh, avec son acolyte bi nekk enfance Koudinoy. Mhm. parce que tey ñoom ci kàttanu suñu borom ñoo tax enfant soleil toll fi toll. Mhm. parce que ñoo dajale seen dërëm ak seen ñaar dërëm. ba yegg si fi te xaaruñu kenn. ba tey jii nit ñi ñëw duñu fekk si. donc di ñaan rek na population bi yëpp jàpp ci ndax waar bi yaatu na. ku nekk daal mën nga am loo ci mën a def. incha allah ñu di jël xaalis ci kër yi di dem di jouer ji xaalis yoo leen moomul ak yooyu yëpp te jeu addiction la loolu xam naa dinañ ci ñëw sa waxtaan ak yéen xale yi am ngeen noo leen mel liggéeyatoo leen defatoo leen dara naar bi rek dama non non bëgg la jeexal rek di di la remercier di wax ne aussi am si organisation la euh, Amnesty Sénégal surtout organisation sénégalaise la euh, ay sénégalais kese ñoo koy liggéey euh, te si mbiru sénégalais kese la ñuy dox malal xam na organisation bu jàpp ma ne bu fekkoon ne ñoom ñu ngi taxawee yenn yi ñun dinañ def partenariat ak ñun dinañ invité ci plateau yi. yu ci bëri euh, am na aussi collaboration bu ñu def ak gouvernement bi. Mm-hmm. c'est vrai que dañuy dañuy xeex ci kaw. Euh, mais après heure bu amee possibilité ñu waxtaan aussi waxtaan parce que euh, jàpp nañ ne am na yoo xam ne mun nañ ko def ensemble. Mm-hmm. ñoom mënuñ lépp. am na yoo xam ne organisation yi mun nañ ko def donc ñu ñu jàpp si aussi de remercier toujours presse bi hmm. parce que heure ñu amee ay messages yu ñuy relayer si ñoom la ñuy euh, donc ñu def liggéey bu am solo hmm. bëgguñ quatrième pouvoir <laughs> non presse dañ leen war a jàppale nag. bàyyi leen rek. kii sànni day sànniwaat rek non ñun dañ ñoo war a jàppale de. daf lay wax rek surtout surtout télé privé yeeg rajo privé yeeg presse privée bi dañuy def euh, mission boo xamante ne mission publique la télé privé la mais vraiment amul benn problème. fii moom de toute façon sénégalais buy entreprendre war nañ laa jàpp oyofalal la ko. Ah, ba population bi mën cee gis seen bopp ci nga xam ne mën nga fiy fekk. <laughs> Bijou merci beaucoup maa ngi leen di remercier ñoom tamit ci seen disponibilité en tout cas man li may wax rek mooy le bienfait n'est jamais perdu ku si nekk rek. Mhm. waaw nga def li nga war a def def lu baax te yàlla rek tax maa ngi remercier ñëpp aussi mi waa du Sénégal comme à chaque fois di remercier ki ma solal muy Ethic Ladies nekk sur les réseaux sociaux di jaay tout ce qui est accessoires perruques sacs chaussures lépp moo ma ko jox donc merci à Ethic Ladies euh, 77 374 16 92. merci. Mhm. merci beaucoup à toi Black Fatwa remercier aussi man ñi ma habillé.

Oli Miss Nokos. tu es en direct Oli Miss Nokos coucou. donc euh, Oli la sur les réseaux. elle est vachement drôle et elle est pleine d'esprit. dynamique seetaan leen ko elle est pleine d'esprit surtout. Euh, de la voir j'aime bien euh, disparité euh, double culture bi pour am ba pare moom lay mettre en avant donc suivez-la sur les réseaux. bu ngeen émission bi rëcc na leen mën ngeen ko sur les réseaux sociaux YouTube. Euh, bu TFM wala bu euh, SSP euh, demain maam Kumba dina ñëw pour waxtaanee nag li ñu doon jéem a laal sànq rek te dugguñu ba ci biir mooy xaalis ONG yi fan lay jógee naka la ñu koy financer et finalement kan mooy nekk réel bénéficiaire wu seen ay action am na lu ma fàtte de baal ma rek donc damay rappeler aussi l' association Fatwa Empire bi nga xam waaw am na ci solo important donc association Fatwa Empire bi mi ngi fi di nekk ci l' entrepreneuriat culturel des femmes l' entrepreneuriat général euh, ci xale yi ci ci ci jeunesse bi ak social bi mais aussi jigéen bu ñu fi kurpañ ñëwal Fatwa mm-hmm. Empire mi ngi fi mm-hmm. donc mm-hmm. jigéen bu ñu fi ngàdd dikkal foroote lépp am nañ ko yo ñëwal rek incha allah donc Fatwa Empire sur les réseaux sociaux le travail continue et sur ça je dirais arrêtez leen di juger nit yi subir violence di ko dénoncer éduquer surtout les hommes à ne pas perpétuer la violence merci beaucoup de nous avoir suivis c'était le petit message rendez-vous <laughs> continuer à parler des ONG. Restez connectés, la TFM a d'autres programmes.